ñooñu dañ doon daw dee waaye yàlla ngi wane ne dee kenn mënu ko daw de xam nga lu tax ñu nettali loolu lii ñu bëgg a digle waqaatiloo xarawan fi sabilillah ci yoonu yàlla ngir bëgg a tawal diinam de jihaad bi bëgg a digle te jihaad nit mën na caa dee moom loolu bëgg a xamal ne dem ci jihaad taxut a dee waaw daw jihaad itam taxut a dund ndax am na ñu doon daw mbas ba nga xam ne daw nañ ba defee dara defee lu ñu raw nañ foofa lañ dee tax na ba waaw képp ku ci dem ci jihaad itam te sa tay sam jeexut du tax nga dee wala nga xam leen ne ana laa naka yàlla sàmm naa ji dégg lañu seen wax alim naa ji xam lañu seen mbir te dina leen ko fay rek laa ikraaha fi diin man fa lazi ana kandi kaaka yaqri jamono lebal laa la kardan lebal suñu ngi daa yi rafet de mu ne ana kuy lebal yàlla lebal gu rafet yàlla mi ngi teral miskin yi ba far ko tuddee boppam tabax fi ñuy jox miskin yi yàlla ngi jàpp ne moom lañ ko lebal te yàlla moom moom yëpp lim ko xaaj bi nga ko jox mi ngi ko tuddee lebal xam nga lu tax mu tuddee ko lebal nit su ñëwee ne la may ma nga may ko doo séntu ci moom fay waaye su la ne lebal ma boo ko lebalee am ne yaa ngi séntu ne dana la fay bon nag tabax ni yàlla gaddoo fay bi nga xam ne dana la fay mu bëgg nga xóolu ne dana la fay moo tax mu tuddee ko leb mën ta lasi ana tandikaaka yëpp bi nga ñu lebal laala da sadaka xaralam xardam lebal xasanu ngi daa ji rafet tey daane foo comme si la ko la ñëwal ko alxaasan ay si la ne kasiratan yi dee bëri su ko defee yàlla moom du la lebal doo ko lebalee du la faylu daay liñ ko lebal daf la koy filomeel filomeel bëri benn mu def ko fukk ba ci juróom ñaar téeméer waaw ba ci ndax day arrêté de wala yàlla yàq ba dëgg na mu ngëb wërsëg ñaan ku ko soot waaye su ñu yaal wërsëg ñaan ku ko soot rasul jaana def na daloo yi léegi ngeen jëm ci moom rek yonent wax na ne sallallahu alayhi wa sallam bu pencam yàlla yàlla dana taxawal jaam ci kanamam ne ko yow suma jaam bi xottoon naa see siiw la ma nga ne naka laa lay seetee te yaay borom mbindee fi mu ne sama jaam sax nga ne xottoon na seetee ko boo ko seetee woon tey nga fekk loolu ci man mas naa laa ñëwoon lu ma lekk nga bañ mas naa laa ñëwoon lu ma naan nga bañ mas naa laa ñëwoon lu ma doo nga bañ man naka laa lay joxe te yaay yàllaay mbindee fi sama jaam sax ngam laajoon na ma rek laa waxee de waaw nga xam ne yàlla wàcce na boppam waaw wàcc waaye miskin ma rek waaw waxoon na ci saaru laaraas ne man jaa saaru dama mbow man jaa bila sama defa loo asra am saaliha benn fukk la ko yàlla sa yetta fi yonantu yonantu ne allahumma zid ummati yàlla dalin sama xeet de mu ne masala la si nañu soqona waalal fi sabilillah kamasali habatin an batat saba sanabila ci kulli sunbulatin miatu habatin muy juróom ñaar téeméer yonantu ne allahumma zid ummati yàlla dalin sama xeet de mu ne man fana si yëq su daa xardanaa sama fayu daa fo sam kulkalo ñu ko ala fan ay fo ne kasiri sa njiit yooyu bëri lépp juróom ñaar téeméer waaw yonente ne yàlla dalil sama xeet rek mu ne innama yoo fak saabirona ajurani bi xayri hisaabin dana leen fay loo xam ne xamul lim de waaw yonente sam ne gërëm na de watur jamono def na delloo yéen yi ngeen jëm fa moom alam tara ndax gisu la ilal mala yi jëm ci mbooloo min bani israila ci bani israila min baadi Moussa te gannaaw bi ak yonent yàlla Moussa is xaale bañ waxee li nag yéen ñeel yonent la mu ñeel leen ivan xelal lanaa ñeel ñu malikan buur nu xaatil nu xara fi sabilillahi ci yoon yàlla xaalam wax hal asiitum ndaxte lee yéen in kutiba nan xare xara taaleef na aleykum ci yéen alqitaalu xare allah tuqaatilo bu ngeen xare tidde xaalo ñu wax ne naa la na ana loom ñun allah nu qaatila ba xare tidde fi sabilillahi ci yoon yàlla wa qad xuñ na sa mbir men génnee men ñu jéeri naa ñu tukka ci këpp ñu wa am naa naa ci doom suñu doom suñuy góor wala maa kutiba ba xara taaleefee aleen ci ñoom alqitaalu xare ba tawalaw ñu dëgg ragal illaa qalil xare aji néew minum ci ñoom rek ñooy ña jàll yoon ma xam see ñëw wala yàlla alim naa jo xam loon bisaal bi ne ci way tooñ ña te dana leen fay de waaw ba nga xam ne yonent ba ñaan na yàlla nag ne na leen falal buur yàlla nangu ñaan ga nag wa qaala ta loolu ñaa leen nabi yi yonent seen ina laa naka yàlla xat banga sa xal nañu lakkum ñaa leen taaloota taaloota malikan muy buur yàlla sawal na leen taaloota mooy seen buur xaalo ñu wax ne ane yaatóori ma na koy nekk loolu ñaan ko al mulki góor ala naa ci suñu kaw wa naanu sa nun aaq ñoo gën a bin mulki ci góor minu ci moom waaye taaloota war nekk suñ buur ndax nguur ci bani israila mës da nekk lu mooy ci sëti waaw ci sëti yahuda waaw ak yonent mës da gën lu mooy ci waaw ak yonent mës da gën lu mooy ci sëti yahuda nguur mës da gën lu mooy ci sëti robin waaw te taaloota moom ci sëti Benyamin la bokkoon nga xam ne ay sëgalkati der rek la ñoon waa ak sa dokkati daal ak sa ay sàmmkat kooku la nuy nekk suñ buur de wala mu yota joxee fu ko saatanam ko mi na di ji sa xamu tus kooku la ba ne inna laa naka yàlla istafaara tànn na mu ko alaykum ci seen kaw yàlla day kooku la tànn waaw wasaada yoo dolli nañu ko basta tamit yaa ku la ñu ci xam-xam wala jiitu moo ci yaram yàlla yàq tamit day keroog bani Israaïla moo ci gën a gudd gën caa mat bind gën caa rafet waaw nit matal ak yàlla ga def ko neex lay jox nguuram tamit taalu ko la jox kon de sant na wala yàlla waa kay aji yàlla ngëneelam alimun aji xam na ñu dee ko de waqaala ta wax loolu ñeela nabi yi yonente seen dina ko balaa ñoo gëm ne taalatu la yàlla fal daal nga war ñu kaw te gud bu teg bu tegtale ne moom la yàlla fal mu ne war inaa ayata mulki naka tegtale nguuram an yaatu yokku may bu dikkale leen kaamootu waxandoo amoon na waxande yoo xam ne aadama ko wàcce woon jëlee aljanna waaw tartale yonent yi yëpp ngi ci seen njoon doon ba ci seen ak mujj ah yonent yàlla Adama xamee woon na ko ba ci jamono yonent yàlla Muusa yonent bu mu ñëw moom la xamee ba nga xamee ne waa ba Bani Israayil murtat nañ nag waa xamaale xati rek xaram ñoom nag leen nangu waxande waa yóbbu ko jëfee yooyu waa di ca tojale ko waa def ko ko waa ñoom Bani Israayil ñi nga xam ne seen dimbal mi ngi aajo woon ci waxande yi nag ñoom ñëpp ñu tara xala ko ba nga xamee nag ne yàlla fal na taale te ñu ne andi kawteef ñu ne waxande yoo ngeen ñattoon waaw dana dellu si de di waay ji nekk la ci yéen fàttali ak dal ñeel ay seen xol di rabbikum ci pexe borom seen wa baqiyatun ak ndesit ñu ma tarak jala bàyyi na ko alu Musa Musa Haaruna Haaruna waaw yaari dal yonent yàlla Musa nga ca ak xetam moom daa sànni ak méteel ak Haaruna ba ak ndabal xafif la nga xam ne moom lañ daa natt na sa yaar ak tajiti yàlla yooyu nga xam ne moom la yonent yàlla Musa jële yonent yàlla sax mi dee dana yéen saal malaayikatu malaayika ina fi saalika naka aji nekk la ci loolu laa atan kawte la kum ñaa leen kuntum dem nag ngeen moom ñoo ci way gën ñu toog rek ñu seen malaaka yoo xam ne waxandoo rek waaw ba ñëwee sant ko ci kanam taalota ñoom ñëpp nag ñu daal di nangu rek daal jëm ci jihaad waaw seen waxambaane yooyu génne ba mat juróom ñaar fukk ak junne waaw ci waxambaane de fala maa fa fala ba génnee taalota taalota bu junne doon leen yo bañ génnee tike bay dina xadis nag muy jamono tàngaay yoo xam ne xam na ko gisul tàngaay noonu te ndox amut alam wax ne inna laa naka yàlla mubtaliikum aji natt la mu leen bi naarin ci yoon yàlla dana leen natt kat ci yoon mooy yoon mu nekk jël ordon diggante Palestine tamit sari ba comme naa mi ni ko ndoxam na Palestine mi ni dee mbokk ci waaye tatt fana dana leen yor xam ne ku mosu ñu ko nag day nee na tamit mi ni yaa nekk la mu ci waaye tatt fana ilaa man salafa wala ka tànk nañu arfatan tànk benn bi yadu ci loxoom dooloo ko dañoo seet ci ndax ma fa sari boo tamit naan mi ni ci moom bañ ñëwee yéen ñëpp bañ gisee ndax ma waaw ñun ndax mu sab day waaw ñun ñëpp ñu dëkkam rek naan naan naan naan ba seen mbir yi bëgg a xotteeku ilaa xal la dara aji néew nañ si ñëwoon waaw lu mën ñetti téeméer ak sukkan ñett rek ñoo tànk ci seen tënk ñoom naan doole loolu yonent ko waxoon waaw ñoo tànk ci seen tënk naan nañ ba mandi yóbbu ci seen daawa yóbbu ni ca yóbbu ko ñun naan naan nañ ba xotteeku te mandi yi wala ma jaawa sax daa ñu jógee ko wala wala si naan ñoo amoon gëm nañu ma saqada de tatan dana ñaan ne alyama ci tay bi jaaloota ci xarab jaaloota ya jine doo la lañuy bëree ñoom ñu nga naan ci yan ni ñëpp ragal nañ mais ñun mënuñu xarab jaaloota de xaalawaat alla si nga ñooñe yesu ni mënuñu xéeli am na naka ñoom mu laak laa dajale ñoom yàlla xam bëri na min seetin puré xali na sin mbiri aji néew xalabat nat nañu seetan mbooloo ko siratal mbiri aji bëri bii si laa ci sagal yàlla mbooloo mi néew yàlla dana leen dimbale ñu noon mbooloo mu bëri wala yàlla maa sabir na aji nekk la ma dago ñu de wala ma barasoo dañu génnee ni jaaloo ta jëm ci jaaloo ta wa jinee di yeeg lëlëb yee xaalal ñu wax rabbana ya borom sama afrique yàlla nga sotti xale naa ci ñun sabran ak muñ te sabbit yàlla nga saxal ak daamana ay dëgg fi ñu bañ sax ci jihaad wan suuf naa yàlla nga dimbale ñu alal xaawi ci nit ñi alkaafir la ñu dee weddi waaga noonu sañ dàqaleen bii fi laay ci ndigal yàlla jini ña dàq xéefar ya waxatale sa daawoo di daawoo da jaaloo te jaaloo te daawoo da fab yar rek sànni ko jaaloo te buuram xéefar ya ndal di toj ba seen rek rey ko rek waataaw te jox ko yàlla waataaw laa te jox ko yàlla almulk ak buur daawoo da daal di fali nekk buur wala itamata ak yonent ba boole ak yonent ak ak ak nguur comme ni fi ko boole ci bani israel kii daf daa nekk yonent ci nekk buur waaye si ñu rek yonent ba taalata di buur ba ñoom ñaar ñëpp ñu dee daawa da di buur ba di yonent ba de waaw la ma taxawal ko yàlla bi ma saa ci la ñu soog wala xamal ko lu ko soog waaw ci def di tam ay waxi njanaaw yi wala laa di faa laaye ndax am diggante kon ak jañab nit ñi jañab yàlla naasa nit ñi baa daxam ñeene seen di baa biñ ci sabab si ñenn la ko sabab ci kon sa yàq lar la suuf si de ci tax li nga xam ne barkam ñenn ñi dana tax yàlla jañ yàq ko ci ñenn ñi kon suuf si yàq rek walakin allah lu fi nekk yàlla soo xam ne borom nga ne laalal xaalami ne ci mbindeef yi de suñ ko yooyu de aa ayaatu laa ñoo aay yàlla de nag de aa dana nu jàng ko alayka ci yow muhammad wala alayka wasalama jëlaa ko mbir mu aji lamboo dëgg de wa innaka naka yow laminal mursalin aji nekk nga ca ñu ñenn ñi de sama salli ala sidina muhammad wa sallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشكر ورحمة وينبغي ومن تبلغ
suñ ko léegi mbooloo ñu tuddoon ci saaro yi Ibrahima ci sëtam arusulu ñoom di yonent ya ñoom ñu tuddoon ñooy mbooloom yonent yi laa wax de boobu saa yi da nga wala tilka rusulu yooyu yonent ñu tuddoon fatal naa gënal nañu baadahum ñeen ak naa laa baadum ñeen ak yonent yi yàllaa leen yónni ñoom ñëpp ku ci ne mu jox ko ngëneel waaye nag gënal na ay yonent ci seen kaw ay morom rek laa tere wetu ci ne ñu jagle ko nga ne loo xam ne ku dul moom amu ko de minhum aji naka la ji ñeena seen man kallama ka waxe na ko laa yàlla naka Muusa am na koo xam ne yàlla wax na ak moom waaw ca tóori sina war a faatam yëkkati baadawum ñeena seen te mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam darajaatin ay daraja am koo xam ne itam daf ko yëkkati la ay daraja yu bari waaw teg ko ci kaw morom yonente bi de ba ak ak moom ak yónneekoom dafa matale mbindee yëpp la xool ñu teg ci néeg waaw ñu ne jamaat sax waaw mooy mu jëm yonent yi gënal xeetam ñu gën mbooleem xeet yi jox ko ay mujjisaat yoo xam ne ëpp na waaw kooku moo gën ci yonent yi de wa aatee naa jox na nu xeesa xeesa ibna mariama kay doomi mariama al bay naa ci kaafir yi bi de jox na yonent yàlla xeesa ay kaafir yi tegtale ne waaw moom itam ci yonent yi gën yi de waaye it naa wasanu dëgëral ko bi xool xudu si coroo ko sa la fekk jibril yàlla dëgëral ko jox ko kattan loo xam ne fu mu dox jibril la ngi dox ànd ak moom rek tey rek wala sha allah donte sooboon na buur ba njubam mbooleem nit ñi waaw maqsas la huute si lesi na ñaañu min waa di way nekk lañ ca gannaaw seen yonent yooyu gi wàcc ci suuf si su fekkoon yàlla yéy dana jàmm mbooleem jaam yépp kon quelque weddi dootu nekk ci kaw suuf rek waaye nag yàlla moom dafa soob ñii waaw gëm mu texe leen ñii waaw weddi rek tey day xaari leen de yonent yooyu yàlla dafa gënal ñenn ñi ci kaw ñenn ñi tax na be gënal ak ay yonent ñenn seen ca kaw ñenn ña loolu alquran a ko wax ku ko weddi yaa ngi weddi alquran yàlla ne gënal na leen yonent yi ci kaw ñenn ñi rek laa wax tey de su fekkee nag nii gënal na ay yonent ci kaw seeni morom yonent bi gën ci mboolem yonent yëpp waaw ci lu dul xaj xaccoo kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de waaw ñu tegtal yu bëri waaw tegtal ba ca gën a dëgër te moo ci jëkk mooy wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina yàlla na ne dafa yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy yërmaane ñeel mboolem mbindeef yëpp su fekkee ni mbindeef yëpp yonent yi yërmaane di jëm ci ñoom loolu wane na ne moo gën mboolem mbindeef yi wan tey te mboolem mbindeef yi yonent yi ci lañ tàmbi rek seede waaw tax na ko wulaaya moo gën a jot ci waaw tegtali ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy gën ji yonent yi de waaw lay ñaareel wa diinaam moo gën ci mboolem diine yi di nga xamee ne diine moo gën ci mboolem diine yi tegtale na ne ki indi diine ci itam waaw moo gën mboolem ku mësa indi diine de waaw xeetam ñoo gën ci mbooleem xeet yi alquran wax na ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi xeet yi ñu tey gën ci waaw mbooleem xeet woo xam ne yàlla mos na ko yéene waaw su fekkee ni xeetam a gën mbooleem xeet yi te loolu ci mbarkeem lañ ko amee kon kay ñu xam ne bon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay moom itam moo gën waaw mbooleem yonent yi de waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla lëkkale ne turam ak turam na ne war a faa naa lakka dikraka lëkkale na ak toppam ak ak toppam waaw na ne woni teen rasala faqad ataa laa lëggani lëkkale na waaw ak jaayanteem ak jaayante yàlla inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha def na ngëdëmam waaw muy ngëdëmam kon loolu defalu ko beneen jaam de kon nag xam ne nan lañ bindee moo xam ne yàlla jox na ko ca péyam ba maqaamaam di dafa ko dindi waaw ku day ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax waaw mu gën leen ñoom ñëpp de waaw lu dul loolu ñëpp na ne ñooy ñu gën yonent yi mooy xaatimul anbiyaa alquran wax na ne maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatimu nabiyina mooy mu jóge noonu bii de xarala nag benn xarala du liggéey liggéeyam bu yéen ba dara si lu mottali waaw mu indi du yéen mottalee ko rek te day ay seet la gën a rafet waaw moom day mottalee jëfam rek te day te yàlla gën a xarala mboolem xaralakat yi kon nag du mën a jeexal ak yonentu indi yonentu boo xam ne xees na kenn ci ñi nga xam ne ñoo ko jiitoon ndax nag yonentu bi mottalee ak yonentu daal mooy yonentu bi nga xam ne moo gën a mat ci yonentu yi lu dul loolu ah na coono gën a bëree ndimbal lan yàlla gën a bëri ci jàmbale te na nit gën a bëri coono gën a bëri yool waaw te yonente sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koy yónni ci mbooleem jindeef yëpp ñu xonq ak ñu ñuul ak ñu weex waaw ñoom géej ak ñoom géej waaw juróom ñoom ñu gisaat dañ ko wàññi la ñoom saar la yoonu insha allah yonent yàlla moo mën ñu def ko alquran yàlla gaarwante ci wenn saar rek dana bindee fi indi wenn saar boo mel ne alquran bindee yëpp la nañ ci way njëkk mooy indi kon nag loolu war nañu ne wenn saar wu nekk mu ci saar lañ ci alquran te saar wi gën a gàtt mooy naa te naakal kawsara ñetti aaya la fekkee bon yetti aaya yi nekk mu ci saar la te alquran nekk na juróom benn junne ak juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn ci yaay rek kon tey alquran la moo la doon ko ñaari junne yi ñu saa rek rek waaw sa kenn kon mu tàkk ba nekk ci gën a bëri kaa bi juróom ñeent laa moom ki nga xam ne ñu ne ñaari junne day waaye kooku du borom Moussa waaye Moussa moom la yàlla waxat te moom ca tóor waaye suñu seetee na yàlla dee Moussa ak na dee Mooma rek xam ne Mooma tu waroon Moussa rek waaw Moussa mu dee moom tëttóor waaw fala jëlee Isa rek waaw yàlla fu dee Mooma moom mu dee moom ca àll yonent yàlla Moussa am deeyaale yàlla daf na rabbi arini anzur ilayk dafa ñaan gis ñu tontu ko ne ko lan faraan yi lan faraan yi ak ma sa dabal saa duma laa dañu roog de waaw yonent yàlla Moussa yàlla wax na ci téere bi ne waxaba Moussa fayaxan Moussa ba yàlla de moom dafa daan ko rek de yonent mu ne lan ma zaqal basaru ma baxa moom ba dem sax waaw rabbi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Adama fii xalifa bu jëkk yàlla teral ko beneen na ko malaaka yi si jóotal loolu day daal ci yëkkatiku waaye su jóot leen ñeel Adama benn yoon rek lañ ko si jóotaloon ca benn waxtu booba mu jeex ndax loolu mi doon ak inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman mooy ñuy def daayiman waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy gën bi su yonent yi de naka noonu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ana sayyidu waladi Adama wala faxra sirna Ali ibn Abi Talib di ñëw yonent na sayyidul arab ne na lay ñëw Aysa ne ko noo mën a nekk sayyidul arab te nga nekk fi mu ne ko man maay sayyidul ba tamit man man doomu aadama yëpp maay seen sang Ali nag mooy ko doomu arab rek la affaire loolu yooyu nag mooy gën ji moo moo gën yonent yi de wax na itam ne waa ana sayyidu waladi Adama wala faxra wax na ne Adama su man doonoo parce que yow xiyaamati Adama ku nekk ci ronam mooy mboolem doom yëpp moo di Ibrahima moo di Moussa ak Isa waaw ñun ñëpp sama ron dara dara ñu nekk waaye ko gën yàlla ñu gën a màgg maqaam ci yonent yi Ibrahima la ak Moussa ak Isa rek Isa joxoon nañ ko ay kaafir muy yëgal faane baras ak ku jub ku jub ay ci maxa di dekkal bàq bee Moussa am na mel loo xam ne su ko sànni rek mu nekk jaani nga loolu bu ko jàppee mu del nekk aw yet loxoom ñoom ñëpp Ibrahima la maqaama bi nga xam ne yàlla jàpp na ko muy xaritam Ibrahima ñu ci gën a mag maqaama ci xarit nañ gën a maqaama daf lay tegal lool ba ñu ko fegal lool wala xarit ci wax yaaram ne koo xam ne duñ delloo ak laajam sa xarit dëgg luñ la ñaan da nga mën ko rek da nga ko da nga ko may rek te tey na ci maqama Ibrahim yéen ci moom yàlla tuddee ko moom Habib Habib ci wax yaaram nag Habib dañ koy jox ak laajam Habib moom dañ koy jox balaa laaj rek laa wax rek waaw yéen ci yàlla Ibrahim xalil moo wax ne lii zaahirun ilaa rabbii sayahdiin waaw maa ngi dem ci sama borom waaw xam na maa jiwale yéen su moom nga xam ne kooku dem nga ci dooleem la kattanam la ci coono nga rek lay yéen su moom subhaan la di asraa bi abdi de moom dañ ko ñaan rek waaw te boo jëndani coono rek lay waaw xam ne wax na ne wala ni asmaa ñu yàq rek di xasee bi yow di ñu ngi yaakaar yàlla baal ko mbàkkaatam seen jëm yàlla ab yi ñu ne ko ina fatahna laka fatan mubinan ñu yàq rek naka laaw ma taqaddama min dambi ko ma taqara waaw ci ngi ñu laaj ko rek waaw amin moo wax ne wa man yéen saana sidqin fi aaxirina yàlla moo sàkkal sa ko rafet bi ñëwee mujj Muhammad moom ci hadis ñu ne ko warafa'naa laka dikrak kuy noon de boole ko sa loolu laa ilaha illa balaa nga àggal kon la gàcce ne te du am na moom dara du la ko ci doon ak ñu di ñu ñu tan ñu waaw xale yi moo wax ne waj nañ ñi wa baniya am na ñu la sna ñu ngi ñaan yàlla waxtu ñu di sama xere ci jaamu xere rek ak yi moom ñu ne ko innama yuridu llahu min bi an tumuridu ahlal bayt ñu jiitu ñu laaj ko xere loolu mooy safale diggante maqaama yonente sallallahu alayhi wa sallam ak maqaama waa Ibrahim de waaw wax na ne ci gën ci mboolem jaam yëpp gën mboolem yonente yëpp bu ñu leen defee par benn benn suñ ko ci dem leen moo gën bañ bañ ci ngeen boole ñoom ñëpp seen mbooloo yëpp moo leen gën kooku moo gën ci yàlla moo ci yonente sallallahu alayhi wa sallam rek waaye naa naa oo saara dafa solo ne yàlla mat ko solo wala ci dañ la ñaan ñu daal di wéy rek lañ ko gannaaw seen def su fekkoon yàlla coowam mooy ñëpp jub kon gannaaw gaa yi gaa yi baax yooyu Ibrahim ak Moussa ak Insa ak Muhammad moom ñu wàccee ci suuf si kon kenn dootu dëng gannaaw bi rek waaye loolu du coowam yàlla lii coowam mooy bindee ni ñu ko rek wala yasaaru muxtalifina illaa man rahimahullah wa li zaalika xalaqahum moo tax yàlla bind nit ñi de mais waa gëm pexe yàlla ñu yàlla wala ñu di pexe rek ndax yaa ngi ko dégg na rek ñun daal di ñu jaarum ko ñoo di koy yàlla koy naa di kaa koy di yàlla wala ki ñu nekk ko la koy wala ñu solo yàlla te mu ñëw ak dina ko rek ñoom maanaam mën ko gëm ñu am na ñoo xam ne sax nañ ci seen gëm yàlla dañ ko xam ci yow maanaam dañ ko gëm ñun waa ji nekk na ci ñoom dafa rek rek dina mu dem sama saara ñëw wet nañu ndegam yéen ci yàlla yi daal wala sa ala danga soobam na yàlla maqa sa doon nit ci ñu ne baamu na ko ngir taaki ne wala ki na laa lu ci nekk yàlla dafa lu dee lu dee maa ngi rëdd lu mu dee yàlla lu ko soobee soobee mu am bu ko soobee mu jubal bu ko soobee bu ko soobee itam mu réer bu ko soobee yaa yaa gis na am na ay gaa yi gëm alquran am si ko sadaqaleen ma arsaqnaakum am si ko asakaaleen ma arsaqnaakum lan lañu war sa galeen su leen yàlla joxee wërsëg na ngeen ci génne asaka rek na xam ne am yaatiya jàpp bu dikkat yow luñ def laa bàyyoon dee dem jàpp bi ñu war a fa la dund jaaga nag firnde lu jiitu bés ba nga xam ne su ñëwee kenn dootu jotoo kenn dootu am sa xarit ñu ràmm la xanaa jëf ca jiitoon rek mooy jëriñ wala sa faa dund jaaga nag ràmm te ràmm lu jëriñ kayoor wal kaafiroona way weddi ñaa mu ngi réew ak daali mun a ñëw di way teel de te ko weddi yàlla ñooñu ñoo di teel sa dëgg de wa dee ne alhamdulilah bi nga xam ne waxut saxaan bi rek bu fekkoon daf ne wa zaalimuuna humul kaafiruuna waaw ba mu ci jafe waaye wal kaafiruuna humuz zaalimuun la wax yéefar yi ñoo ñi nga xam ne tey dañuy ñoo tooñ seen borom rek laa wax tey te doon nañ lépp pour pour pour boromam rek laay bi ma ko jàngoon ayatu kursi sangab wax yëpp moo di alquran sangab alquran mooy saaru baqara sangab aaya yëpp mooy aayatul kursiyu ni ki sangab bi yëpp di Muhammad sangab arab yi di Ali ibn Abi Talib waaw sangab Faris waaw di Salman al Faris sangab Bilal al Habasha waaw di si yàlla de sa nga borom waaw di sooy borom yi de laay bi nga xam ne mooy sa nga mboolem laay yi mooy aadam ko fi waaye tey moo gën a moo gën a màgg ci mboolem ay alquran yi lu tax mu gën cee màgg lépp lu nekk lam tegtale rek waaw loolu mooy darajaam te moom tegtalewul lu mooy wéetal yàlla ak xam yàlla lamboona ci wéetal yàlla ak xam yàlla loo xam ne jenn lam jenn laa lamboowu ko tur yàlla yi itam fukki tur ak juróom-ñaar ci tur yàlla booroon si ci jenn laa amul ci jenn laa yu boole allahu tur yàlla la huwa tur yàlla la alxayu tur yàlla la alqayyum tur yàlla la daa taama soo la nga jël ci yàlla la dellu tur yàlla la ndawoo ma nga dellu ci yàlla tur yàlla la mën nga nuyu yëpp soo ñu ndawoo la nga jël tur yàlla la daa di jël tur yàlla la yàlla la tur la nga jël na bu tur yàlla la wala yaay dina ma xam-xam wala yaay dina ma di sey di ne nii waaw la nga jël ci yàlla la dellu la bi ma saa la nga jël ci yàlla la dellu wa saa ko fi yoo la jël ci yàlla la dellu waaw sama waxtaan la wala yaay dina lan yàlla dellu toujours la ngay matal ni waaw ci yàlla dellu wala ci yàlla dellu alhaali yi mat yàlla alaa fi mat yàlla rek rek ci ci doon juróom ñaar waaw ci dara taxawaay laay bi yàlla ko rek rek loolu moo tax mu gën a màgg ci jëpp laa ay loo xam ne da ngay ji moom la ñu ko mu dee jalaala ismu jalaala ki nga xam ne moo di allah ki nga xam ne moom kenn mënu koo yàq ba du tudd yàlla moom boo ne allah muy tudd yàlla soo dindee liif gi muy ni daa ay mulku samawaati wal ardi di tudd yàlla nga dindi laam mu njëkk gi muy la ay mulku samawaati wal ardi di dal di tudd yàlla nga dindi ara laam yëpp fu nga def si wéyoo di tudd yàlla tey waaw allahu yàlla mooy bismillahi laasam ci saaxir naka nga xam ne mboolem tudd yëpp danañ fa laaf jëm ci moom te moom duñ fa laaf na jëm ci wenn tur tur yëpp ay turam lañ waaye moom buñ njëkk wax ne moom turam benn tur la ci tur bi man laa wax ne rahmaanu tudd yàlla la rahiimu tudd laahi la tur yëpp bi rek ngay wax ne tudd laahi la kon nag laaw moomu ñuy tudd waaw boobu mooy tudd man rek laa waxee waaw te kenn mënu koo tuddee waaw jàmbaar yëpp ak buur yi jaw yi yëpp waaw kenn mësul tudde sa bopp allah rek la de anta alamu da wasa mi yéen yàlla na kenn mësul da dégg turam doom rek la de ñu ne benn jàmbaar mas naa tudd mas na ko mas naa tudde boppam waaw allah waaye foofu la xalatam yëpp waaw tey ñu daal di tey ñu daal di dégg taxawaay rek waaw daaw na li muy daw yëpp ñu ne yéen lay wax na wax na maa ngi fekkum yéen ay xëy ana rabbikum ala waaye baatam allah maay allahu kooku moom benn mbindee bu ñu ko wax rek waaw allahu allahu allahu yàlla laa ilaha de bu booy jàmm ñu tëdd illaa wa dara moom kenn xéewul jàmm ci mbindee yi mu ne moom alay mooy sax ji dund yàlla rek kay dund ndax ku dul yàlla bu fekkee yaa ngi dund léegi am na jamono dund na woon yaa ngi séntu jamono ci kanam boo duñ faa jéem a dund rek rek kon dund ci diggante yi ñu ne nekk yàlla nag moo fi nekkoon parce que dara nekk ci biir yi nekkee moo fi nekk mu yëpp jeexee itam moom yàlla moo fi nekk am xayam moo di taxawaatam ci biir jàngale mooy ki nga xam ne tey dafay taxaw ci biir jàng yëpp waaw mooy seen bi rek laa fay rek asamaan juróom ñaar ak suñu juróom ñaar liñ lambon ci biir rek la rek waaw la ko dara jaaxaar ci gën a rëy waaw ba ci takkale ñoo gën a tuuti rek la rek dara na muy gëtëku ne mooy soppaliku ay mbiram laa ilaha déedéet booy jaamu ci dëgg ilaha ndara meew kooku mooy maanaam ci saaye baatam laa ilaha illallah mooy sikkar ci gën ci sikkar yi yonent bi ne xayru zikri laa ilaha illallah wa xayru duaa alhamdulillahi rabbil alamin gën ci sikkar moo di laa ilaha illallah ku nekk ak maqaamam la am na aw xott am na ab taal am na saali saal mooy diw ba nekk ci biir saal ba ñoom saahir suñu waxee laa ilaha illallah lu nëmm laa maa doon a jaaxal si waaw amul kenn ko jaamu ci dëgg waaw dama yàlla rek fay de mbir yi soo jëm ci yàlla xam ne jox nañ lépp gannaaw yàlla rek dañ bëgg waaw ñoom suñu waxee ne laa ilaha illallah dañoo wax ne daa wax soo dafay àttan ci waaw amul dara lu ñu war a jublu waaw ca dëgg-dëgg lu ñu yàlla rek rek waaw ñi nga xam ne waa dara ñoom deful yàlla ñoom suñ ne laa ilaha illallah la moo joo dafay àttan ci waaw dañu wax ñoom amul dara loo am amul dëgg-dëgg waaw lu ñuy ñoom lu ñu yàlla rek rek waaw tawhid ñu ñetti maqaama tawhid xam tawhid xaas ak tawhid xaasi xaas tawhid xam mooy lii laa wax laa ilaha illa huwa ndax ñoom dañoo fàtte yàlla rek tey moo tax ñu delloo ci ñun ba ñu xaar waaw tawhid bi xaas moo di laa ilaha illa anta ñoom dañoo te yàlla fa teew ci seen xol dañ di ko wax rek tey day tawhid bi xaas xaas nag moom ku ko wax rek tey dañu ko def sa bopp de laa ilaha illa ana ñoo laa jox na ko def laa tax soo jàpp ci ko su nekk nga mën ci wala mën di jaagal nelaw rek moom yàlla moomu nga mën di ko jàpp di jaagal nelaw nga mën di muy nelaw yoo yam ci bët rek ak ci xol bu diisee waaw mooy nelaw nelaw motal la bi yàlla indi ci jaam bi ci bett waaw ñëwee ci ko waaw ak yëngateem ak ak yëgam kooku di daal yàlla ñëpp jàmb na ci moom ak yoroo fa ne xolam ne yéen a sallallahu alayhi wa sallam ne Muusa mas naa toog wax ci xolam ne ndax yàlla dana nelaw yàlla daal di xelal malaaka mi rek ne ko teral Muusa nelaw ñetti fan ñu fagloo ko ñetti fan mën na nelaw bët nag bu ko lekk taw ko dama ne ñetti fan nelawul rek waaw guddi yonent yàlla ba nag yàlla sotti ci kaw ngëmmantu yàlla Jibril indi ko ñaari ñaari butéel ñun bii ba mu fees ñu ne ñu ne ko tee ko sa ndaxar lay yor ñu nga tee ko sa càmmoñ te duñ ko waaw butéel waaw ñu tee ko bu gëmee ko bu gëmee ko rek butéel sal ko waaw ba mu yàgg ñu nelaw rek fee waaw butéel yaa rabbi waaw téere waaw toj ba tasaaroo ñu nelaw ba xew fekk ñu def waaw ay xott xott ba waaw yàlla na ko yàlla mu def asamaan ak suuf ak mbindeef yëpp waaw ci dem nelaw waaw kon ndax dana baax yow mu nelaw ñaari bideel sax mën na ko wattu tawal na am na benn jaam boo xam ne saaru la woon sangam jënd ko te la ko tawee wàllu yoon bii la jëlee sangam dëgg di jot sang bi ne ko laaj mu laal bi waaw mu laal ba na fi di dem ne sama di loo def mu ne ko damay nelaw mu ne ko ndax am nga borom ni ki ni ki man ah mu ne ko am na borom bu moom mu ne ko ndax sa borom nelaw na ah mu ne ko sama borom bu nelaw mu ne ko jàmm daal war ba nelaw soo sa ngam nelaw de waaw kon yow yàlla nelaw rek tere waaw mu bàyyi ko yàlla ñu ko yow yàlla de sama jàmm dama ko am nelaw ñaari taalibe mas nañoo xëccoo warante bii taalibe ne nelaw daan moo moo gën ñàkk a nelaw ndax kuy nelaw du mooy yàlla mukk seen yooyu benn taalibe ba ne ko ñàkk a nelaw gën ndax kuy nelaw du mën a fàtte yàlla du mën a def dara lu baax seen yooyu ñu warante ñoo jëfëriñ la sëriñ bi ne leen lu wax kii ne ko man dama ne nelaw gën ndax kuy nelaw du mooy yàlla kii ne ko man dama ne ñàkk a nelaw gën ndax kuy nelaw du mën a topp yàlla rek rek sëriñ ba ne ko yow mu ne ñàkk a nelaw gën nelaw day ak dund moo gën sag dee rek laa xewe dem leen ñu xanaa ko jëlee xam na lu ñu ko wax man fa ndefu deet kenn was sama bana ma ràmm ñu ndaw sama ñu laa bi ñu mbare ci ndigalam la moom yàlla kenn du ràmm fa moom nag li muy ci coobaraam rek yàlla mu daal mu xam maa bàyyi na ay nuyu la nekk fa kanam bi mbéy mi wa maa xam foofu maa ngi nekk ba gannaaw seen wala yu tëri leen ci bi seen ci la ñu ne lii ci lañ xamoon la ilaa bi ma saa ndara la mu sedd wa fi ma tëna kursi wa dànd naa ba sama waatee sama di juróom yaar wa daan laa suñu juróom yaar wala wa de di sant ko ci ñu abe te seen wa mu ala li mu daaji kawe kawat mu teel ala si mu aji mag magal daraja bi jaagam magal yaram la sooreel ayatul kursi ak yonente sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dañ mën a bari te hadis yi hadis yi yëpp la waaw yonente bi nga sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne boo jullee farata ba sëlmal jàng ayatul kursi dara defut sa diggante ak dem aljana ñu ne dee rek kuy dund mën na dem aljana waaye kuy def soo sëlmale farata jàng nga fa ayatul kursi daal na nga xam ne dara defu sa diggante ak dugg aljana waaw li ñuy dee def ba dee rek waaw dal dugg aljana rek dee rek waaw rab na ne ayatul kursi koo xam ne jàng nga ko waaw fukki yoon yàlla dana la tabaxal fukki njëndi ca aljana ñaar fukki yoon ñaar fukki njëndi xamar ne ba ndee fi njëndi gën a bëri yàlla ne yonent ne ko waaw nga yow yàlla moo gën a waa waaw rab na ne ayatul kursi ku ko jàng mu ne xarafa ni juróom fukk waaw yàlla dana la tegal saytaane ne waaw képp koo xam ne ne sooy tëdd dafa jàng ayatul kursi waaw soo ko nelaw yàlla dana la wattu dana la wattu wattu sa miir ak miir ya nga xam ne ñu nga dend ak yow de Abu Hurayrata yonent ba mu ko sàmm la asaka ji muy sàmm asaka ja ba guddi benn sàcc ñëw ne kii bëgg a sàcc Abu Hurayrata jàpp ko ñu ne ko bàyyi ma ñu ne ko dama la bàyyi mu ne ko nañ ma baal rek waaw comme boo déggee dootuma dellu si xamtoore waaw alors nga bàyyi suñu dem waaw su ne sa ba mu war a yonent ne ko alors sa nga defal sa jaam nga jàpp bi mu ne ko waaw daf maa leen lu ci yàlla muy naa ko baal waaye du dellu si waaw yonent ne ko dana dellu si nag waaw ca ngoon mu dellu si dëgg fa ci alors nga jàpp ko rek soore mu ne ko dam ne doo dellu si dellu si nga mu ne ko lan sama waral ci yàlla rek nañ ma baal waaye dootuma dellu si rek soore te su ma ko yonent ne ko ni nga defal sa jar jar rek mu ne ko bàyyi bàyyi naa ko waaye mu ne di dellu si mu ne ko dana dellu si ca ngoon mu dellu seeti ndëgg sax ca boo roo fa jàpp ko ne ko bu yoon bi dina la bàyyi nit ñetteelu yoon bi waaw mu ne ko bàyyi na sama xamal la loo loo xam ne ñu danaa noonu ci biiram soo demee ci sa laal ba nga xam ne tëdd rek a def li nga jàng ayatul kursi soo ko jàngee ba nga xam ne la soog a nelaw waaw yàlla sama xaat sa kër saytaane di ca dugg ak kër yi nga xam ne ñu nga sës ci yow yëpp ñu ba di set te yàlla dana dàq ci sa kët waaw bépp jabar bu góor ak jabar bu jigéen la soo rey gépp la ndem daal dootu dugg ci sa kët waaw boo rey sa bàyyi ko ñu dem te su ko fay yëngu ne sax nga defal sa jar jar ba waaw mu ne ko daf ñu def ñu xamal la faram soo sama bàyyi ko waxal na ne ci jàng ayatul kursi mu ne ko tankat la doo doo wax na la dëgg rek waaw loolu mu la wax dëgg la ayatul kursi yow waaw koo xam ne jàng nga ko fukki njinne yoon nag waaw xëy na jafe muusal njab te safara kooku ci xeet yi ci bàyyi la nga sara seede waaw koo xam ne am nga jàqare ji la jaaxal na nga jàpp rek jàng ko lu yëpp jëfin ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci yoon boo jàngee ayatul kursi ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci yoon jàqare ya moos lu mu réy réy yàlla dana la ko ñu bañ a xam rek laa seede waaw loolu sant la ci nga ne ayatul kursi rek seede waaw la ay taafi diini kooku lu ko wasal wàcc na dafa xamee ne ndaw si lansaar dafa mur ko dafa nekk feefar baam na ko nag man man na ko dama jub neefar jub wala man juli laa fokk nga dugg ci lislaam rek waaw daal dañoo nekk feefar ni sama doom la waaw lansaar moo dem di góor dañ si xëccoo ba yonent ba dégg ko góor daal mu ne laa ikraha dee dem beneen ko ci diini ci xaraf ci diini lislaam kon sañ nga far sa kenn ne ko dugal ci diini lislaam ba ku nekk waaye soo dugg ci sa coobar rek waaye maa la jub waaw fokk nga nekk julli bi waaw loolu kenn amul jëfal sañ de parce que dawa ne jub na daal rus bi njub ne ko yëpp ko ci loolu lu am daal waaw gëm yàlla am njub la waaw kéefaritam am réer la ku xam ne lii réer la lii njub la leen tànnal sa bopp rek nga gisoon rek waaw dañ ko far sa kenn sama yàkkër ku wàdd na di taaxooti ci saytaane di taaxooti ci këram waaye mën tam gëm di laay ci yàlla faqad istamsaka jàpp ne jëla warwati ca biir daal saagara yi dëgër de koo xam ne yàbb nga xëre yàbb yoonu seetaane dem waaw ko ka gëm yàlla rek kooku jàpp ne buum bu dëgër de moo di yoo xam ne du dog mukk de lam ci faami dee rek dog la añeel ko wala wala xam ne woon aji dégg la mu la def na wax ko alim aji xam la mu la def na jëf ko rek allah yàlla wali lafina mooy aji dimbale ñooña آمنوا gëm nañu yuxrijuhum dana ñu génne leen ñu ne zulmaati ñu tukkee ci kéefar ila nuuri jëm ci gëm yàlla ñu gëm yàlla bi seen ngóora yàlla mooy seet jaam yam tànn ñu génne leen ci lëndëm yi kéefar yóbbu leen ci leer ak gëm yàlla gis nga kéefar su ko yàlla tudd daf koy jàll ndaxte lëndëm moom waaw dafa bëri waaw xeeti kéefar dafa bëri ak xeeti mooy yàlla gëm yàlla mooy ñooy yenn yoon rek la moo tax nuuru ji moom ñu mufradal ko wala si na ñooy na kafaroo wat nañu awliyaawum kafaroo wat nañu awliyaawum way méngoo seen taaxooti saytaan yore ni ki nga xam ne yàlla moo méngoo jullit yi ba dugal leen ci yoonu njub kéefar itam saytaan yaa ko méngoo rek yuxrijuunahum danañu jëli leen mi ne nuwari ñu tukkee ci gëm yàlla ila zulumaati jëm ci lëndam ya ñoo tam ñu gën a leen ci leer yóbbu leen ci lëndam de ulaayika ñu ala gaa asaabu meer ñu war a bi safara am ñoom xaalis dana way di indi gaa ci way safara alam tara ndax gis la yow Muhammad wala alayka wa salama ila lasi jëm ca waaja nga xam ne xaaja quloono nu Ibrahima Ibrahim ndax gis nga waa ji daw ja doon dagg yonent yàlla Ibrahim te mooy Nimrod ibnu Kanaan ci rabbi ci mbiram boromam ana ataaw laaw ngir bu joxat ko yàlla almul ko nguur Nimrod yàlla jox ko nguur moo ne woon àdduna yëpp amul kenn kum digaloon ñu réew ni nag ci xéewali yàlla yële daw ca ba ba ba ba dem di woote ak yàlla te mooy Nimrod ibnu Kanaan rek ba yonent yàlla Ibrahima jëli waa ca sa dara sa ñëw di wax ak moom is qaala ba waxee Ibrahim yi Ibrahim mu ne Ibrahima ndax dooma jaamu dégg mooy sa borom yonent yàlla Ibrahima ne ko déedéet kii de sama borom bi ne ko kuy sa borom Ibrahima ne ko rabbi ya borom sama allasi mooy buur ba nga xam ne yéen yi dana mu dundal ku mu la mag dundal ak mooy mu sama ray ku mu la mag rayam yonent yàlla Ibrahima ne ko sama borom mooy ki nga xam ne ku mu bëgg a dundal dundal la ku mu bëgg a raw raw la am nañ loolu ne ko loolu day kon man la daal di woo ñaari gaaw romb kenn bàyyi kenn ni ko raw naa fii dundal naa fii loo xam ci loolu Ibrahima daal di taxu bàyyi lay dem ci lay sa gën a weex xaala Ibrahima Ibrahim ne ko fa inna allaha naka yàlla yaati danañu dikkee bi shams ci jant ba neel masriq mu tukkee ci penk yaati dikkeel daa ci moom neel maxrib mu tukkee ci sow yow mu ne ko su fekkee yàlla nga yàlla mooy ci sankal jant bi mu bàyyi ko penk yi sankal ko mu bàyyi ko sow rek ma xam ne yow yàlla nga rek bëgg te sëb gërëm nga la fi waa nga xam ne kafara wa di wax nu mu def nu mu def dal di gërëm xam ne nu mu teg ci loolu tontu rek waaw wala wala laa di jigal ci mu alxamul zalimin ñu di wax tal de waaw yonent yàlla Ibrahim fekk booba kii fa xamoon ba nga xam ne ñëpp dañoo xiif kenn xamut nag waaw dara njëg ga xamut lépp waaw mi ci loxoon Nimro waaw moom mi biir mi dina am njëg mi yëpp te nangu li nga xam ne moom la tëral daal ne mooy yàlla ñu jëggal la koo xam ne weddi nga ko rek ñu la joxoon njëg yonent yàlla Ibrahim ñàkk bind daal di waaw war mbaamam ñëw ci di jëgg si ba mu dagg ak moom dagg yooyu mu ne Ibrahima moom bu leen ko jëgal bàyyi leen ko mu dem waaw yonent yàlla Ibrahima moo ñëw toog waaw yaxaw neenam ba mu ñëwee ba jub këram mu romb beeñ bu rafet waaw mu ne këram a sol ci beeñ bi ne dama faa koy bañ fees ma sëf ko su ko defee su ko xale yi gisee daa ñu dégg dafa ne indi naa dara waaw seen xel mën a dal bu baña fag fagg la ngeen def waaw daal di sol waaw ay faakam yëpp bañ fees ak suuf mu takk sëf daal di indi daane ci këram rek tey rey xale daal di bëgg nag ñoo yëg ca kaw saako yeeg foo waaw yonente yàlla Ibrahima coono la jàpp ko mu daal di nelaw ndaw sa ne waaye naa dindi ci ñu naan naa ko toggal lu mu lekk balaa xew daal di ñëw tekk benn saasa rek tekk ci sëriñ bi gën a rafet ci sëriñ yi mu daal di lakk mburu rek tey rek waaw ba Ibrahima xeewoo kat ak ñam ci xeeñ ko rek tey rek mu daal di ko taajal ñam mu ne ko waaw soo jëlee loo lakk mburu ah mu ne ko njëg bi nga jëlee ci sa sa xarit ba nga demoon joxe fekk ba muy njëg daf ko ne maa ngi dem ci sama xarit fa léegi fa luñ bindee waaw mu ne ko sa xarit ba njëg bi nga fa jëlee tawala toggal de waaw mu xam ne yàlla ko joxe loolu tax ñu di ko wax ne waaw xalilulaay rek tey rek ñu xam ne xarit bu ñor yàlla Nimrod ibnu Kanaan ko jaw la woon buur la boo xam ne moom na àddina ñeneen di téeméeri at amut kenn kum digaloon te Firawna li muy doy yëpp Misra rek la moomoon addina dañ ko sañcee ba tey ñeneen ci buur a ko mos a moom ba mu daj xam naa ñu suuf di yowoo
ñaar bi ñaari yéefar lañ ñaari jullit ñaari jullit dafa am nañ wóor yàlla añu ko ci kéefar añu ko ci gëm nit dana nekk buur dana nekk jullit waaye nag nguur ga dana sax mu maandoo waaye bu nga ànd ak tooy rek nguur moom du sax mukk nga ànd ak tooy moo xam nguur gi jullit la moo xam yéefar la rek ci dëgg moom yàlla ko ni am waaw numbar nag dafa ñàkkam xel ba nga xam ne amul dara ñu nga ci dag yan gi rek am nga ci ne amul sam xel moo tax gëm bëri ci alxuraan yonent yàlla waaw saraan na moom waaw li muy saay saay yëpp dafa ñëw lool waaw di ko xam ne daal nit la waaw moo tax ne di kaayaam moo gën a bëri ci alxuraan di kaayaam moo xam ne nga xam ne waaw amul xalaat aw ka la di di ko nekk jëm wax jëm ca waa yàlla mara romb nañu ala xare dañ ci dëkk waaye seet nga seet nekk li boobu dànge Ibrahima am na loolu ba xamee ne yàlla mooy ci dundal bi lay mooy ci sànkal jant bi mu bàyyi koo ci tànk te kenn mënu koo sànkal mu bàyyi koo ci taw wala boog nga seet waa ya nga xam ne dafa romb woon dëkk te dëkk bi mooy bay dina xarit te boobu mu nga war mbaam amee sa ndëgg amee waaw kotam boo xam ne mën nga dem jaram waaw tëdd ko naan te waaja mooy wasaare waaye tam moom bay sama xarit waaw yéetum aji daan la mu xaaw roja ci kaw ci lalam booba bay sama xarit yàlla rafal na ko bokk na sax gura yéeral yàlla xeet ko ci ñoom mu xal bani waaye rafal bokk na sax la rafal jàkka yi ba nga xam ne nekk bay fa nga daanu waaw sax bu taxawam ko fële dafay wax ba gis bay sama xarit nekk gant ak ñu dundee xaaral mu wax ne am na yow yi mën na koy dekkale ak yi ñu ne dëkk laa yàlla war na moom yaa ci gën a am ci am de ba dëkk bi nag ñu dee nii na ko yàlla dekkale gannaaw bi amaatoo laa ko rey ko yàlla moom comme que waxee rek yàlla daal di ko rey foofu moom te saxal ko fa téeméer yaa saxal ko fa mais daa am téeméer yaa de sama baax la sax mu dekkal ko gannaaw bu ko yàlla rey ba mu dee foofu rek téeméer yaa bay nëb bëtu bay nekk yax yoo xam ne ngay nakkati yàlla daal di ko dekkal rek ñu doon ko kaafir bi nga xam ne moom la doon laaje ba ko yàlla dekkalee xaala wax yàlla ne ko xam naka day labista nga soxti xaala mu wax ne labista sax na ma yow mu def mu ne benn bés di bëgg wax benn bés fàttali ko yëpp mu dul bés ndax tey ni ca dëkkam ba yor yor jot mu ko laa ci foofu mu dee te duñ dekkee ci waxtu takkusaan la mu ne aw baax day ñëw ci benn bés te moom def na yëpp ci benn bés yëpp moo tax mu ne bés benn bés laa fi am amatu sax bés lenn bés laa fi am ah laa wax yàlla ne ko bal bay la di sax sax nga fi yàlla ne ko sax nga fi téeméer at nag kon suuf seetal ñu def tànn bi ko jëm ci ñun sax seetal gëm bi nga gëm bi nga yëngaloon loolu gëm nga ñu coono ñu koy xet mu def ko ci fañu ba ma nga mel lan meloon ci biir ba mu ko fàkkee ba saa yu gaa naan sa njëriñ nga xam bëgg a naan mu seet ko dara sa kër pour mu nga mel lan meloon ba mu ko jëlee jëlee dama ko xam na ko doon soppi pour mu wér kon su seetal nag ilaay maa ngi ko jëm ci mbaax la mu ne ko seetal mbaam mi nga waroon nag mu seet mbaam ma moom fekk muy yax yi ci nag def yi ci yax yi nii ba ci génn nii muy melkati yàlla woon ko noonu ba mu gisee nag mbaam manam deewee ak weexam ya weexam yi melkat yi yàlla ne ko def nañu loolu ngir na nga xam yow wari na yàlla ka ak ngir nañu def la xaaral ko ne man la ko ci dekki dinaa fi ñëw ñu def yàlla la def ngay man la ko moo xam ne ci la ñëpp xam ne yàlla mën naa dekkal ku dee yàlla ne ko yow fële feetal leneen am jëf yàlla mbaam xoolaat na yàlla mu am lu ci loolu day wax waaw ak seen yaxi maam yax bu ne lay tëdd daal sa morom yax bu ne lay tëdd daal sa morom nag waaw ba yax yëpp booloo waaw ba mu dem daal ma ma tëj day fa ñu ci waaw waaw nga tamit dekkale ba tey waaw sama nag ci waaw topp na ma de ko laa mën aw yàq ba nga xam ne yax ya booloo na ba noppi bu ñu rek yàlla daal di ko wax daa aw yàq daal di ko wax daa am der rek waaw mbaam ma daal di jël taxaw rek ñaax rek kenn léegi ñun daal di koy àndal xajul maa jàpp na wala ko ñu jëm ci dëkk dëkk mu ne léegi léegi loolu loolu kenn ñu ne yàlla daal ci na kaam mu ci kattan rek yàlla ñu ñu nekkal laa mu nit te saa ma saa yoo ko dama xam ne war na maa nga leen jaar ca dëkk ba ñu ne ko yow kan mu ne ma nga feer ñu ne ko waa ñu fàtt ñu ci def ma feer ñu ne xam ne lenn lu ma téeméeri adama ci léegi te ñu ko fàtt ñu ne laa feer ñu ne lenn ma feer la feer waaw ñu ne ma feer waaw mu ne ma feer la feer ci ci ci ko ci jërëjëf waaw te ñu ne ko ma feeru lay su fekkee yow ma feer ma feer ma toog ma toog ma feer ma toog ma tànk ñu soxla xam ne boo xam ne cee xam ne benn problème boo xam ne dinañ sax ci rek lay am na ñoo xam ne moo leen daw rek lay mu daal di dal waaw ñoo ci jëm ci ñu ñoo ci jëm ñu ñu problème lépp lu ñu leen waaye ne man lay fekk naa sama bàyyi bind jële ci sama maam jële ci maamam mais ron standardement da nga xam ne moo nekk ñëpp rek man fa pour affaire boo xam ne ñu somm yëpp la ñu ngi nit ba am ba am dëkkoon ñu tax amal na la te gis ndaa ñu ngi ndaa la ko tëkkee te te te kaway ci ñu nekk ñu ñu ko topp ko ko ñu nga xam ne moom la ko fay ci kër ak télé ñu ko ñu na la télé ñu nekk ci la yàlla la ñu tan ñu ko ko ñu ko xam ne yàlla ko ñu waaw ko la la ay waaw waaw ñu ko ñu do yàlla la kenn tan tay ne jox fayro ma fayro biñ juddoo ba am ñaar fukki at la day ci jabaram doom biñ bindee ba am ñeent fukki at ñu ko ci sukkee moomu yàlla xeetu di ko yàlla rayee téeméeri at mu detti ba mu dettee itam dekk di waxambaare yi ñeent fukki at dellu si bi mu amee ñaar fukki at jur doom bi nga xamee ne tey moom xam ne ñeent fukki at ban lu doom ji am doom ji am na ñaar fukki at mu dee doom ji dund téeméeri at gannaaw mu dellu si moom di waxambaane ñeent fukki at doomam di doom yi ci màggatam téeméeri at ak ñaar fukki te ñoo bokk dee ci benn bés ñu ñu di ko jàllee mais doom joo xam ne moo bàyyam ñoo deeandoo ci benn bés te fanam tuut na fanu bàyyam ñaari sund si dund bàyyam rek rek waaw gis nga ñeent fukki at rek la dund waaw doom ji moom dund na téeméeri at ak ñaar fukki mu yetti ñeent fukki waaw su dee ko xam daal ñoom ñëpp ci ànd ñoom bokk nañ ci leen masawru nag laaj na mu it dafa amul ak teggin naka yàllay dekkale dëkk bi ne gannaaw bu mu deewoon moo tax yàlla wan koo kaatee ko ci boppam ray ko téeméer at waaw gis na kaatee waaye fa mun a ci xam ne dee na téeméer at waaw ñu soog koo dekkal waaw xool nga xam ne tey moom la doon laaj de Seydou Ibrahima mi nga xam ne laaj na fa laaj ci tajwid waaw moom daañu ko woon kaateef gi ci leneen lu ñu rey ko rek waskur jàngatal is xaala ba waxee Ibrahima Ibrahima ne rabbi yow borom sama arini yàlla nga wan ma ay sa tur yi na ko ngay dekkale al moo taawaay dee de yéen si yàlla Ibrahima moom daf ne yow sama borom yàlla nu wan li ngay dundale waaw ku dee rek rek xaala wax yàlla ne ko awalam tumi addëggani la yow Ibrahima ne mën naa dekkal ku dee yàlla ne ko ba yow Ibrahima sax gëmuloo ne mën naa dekkal ku dee ba yàlla koy laaj yàlla laaj na ko loolu mu tontu lii ñu tontu si way dégg yi dégg xaala wax Ibrahima ne bale anaam dëggal naa ne mën ngaa dekkal wala kenn lu fi nekk ñaan naa ko liyet may nangit na dal xal bi xol sama dama ko bëgg a gis ci jamono rek waa xaw ba dootuma am sikki sàkk waaye daal man xam naa ne mën ngaa dekkal ku dee rek laa waxee day loolu la yonente wax naa nanu ah ko bu sakk min Ibrahima de waaw Ibrahima sikkut waaw daf leen wut waaw xam-xamam jamono la bëggoon rek rek xaala wax yàlla ne ko te ku sa jàppal arbaatan ñenente mina tayri ci njanaaw wala bëgg nga xam ay dekkale ko dee nag wutal yeneen ci njanaaw muur yeneen ci njanaaw benn njanaaw ba mooy taawus ci kaw ci kaw boobu nga xam ne moo gën a bëgg àddina waaw ci mboolem yàlla bind soo ko gis mu ne waaw sureeku di sigira di niiw di wane boppam parce que taar rek la ko yàlla bindee ak fan moo fi gën a bëgg lekk du suur mukk ak baaxaay moo fi gën a xër bu dayru mukk ak sirat moo fi gën a bëgg a tëy yeneen ci ñaar yooyu yàlla ne ko jàppaleen parce que ru na ta jàngalee yi rek jëm ci yow ray leen ñoom ñëpp mu ray leen ñoom ñëpp boole leen daggate leen jaxase leen dund yaa seen yàpp ya këdd ko ba nga xam ne day mu nekk genn nakk koo xam ne lépp taxand su ma ñaan sant defal xalaatu bi jabarin ci yëpp daj ci bi daj jubloo yooyu li mun na ci ñoom di leen xaaj waaw yàlla ne comme soo leen waaye ba noppi su sure na nga dagg boppam nga téye bopp ba ci bopp bi rek la leen di xam ne i ci def nag ñu boole ko wal ko ba nga xam ne day nekk na genn nakk mu dank ko mu dank benn dank teg ci yu daj dank benn dank teg ci yu daj dank benn teg ci yu dank benn teg ci bi muy ñenante dank yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo fa booloo waaw su ma law na topp xoolee nag mu ne ko téye ci boppam waa kenn ci ñoom nga woote mu daal di téye sirat boppam sirat ne sirat la bokk ci sirat te ci bëre def lëk lëk lëk lëk daal di génn la bokk ci moom ca bëre ci def lëk lëk daal di génn ba booloo waaw daal di nekk sirat bu mat tëj daal di ñëw rek waaw jokk ca bopp ba rek sirat nga daal di def daal fële daal di daal di sab mu ne pikab pikab bi def noonu mu ne baaxaañ baaxaañ bi def noonu mu ne tan waaw tam ñu def noonu waaw moom la ko yàlla wax ne su ma doon ne toppoo xooleen yaa ti naka danañ dikkal la saa mbir ñu joxe gaaw de ñoom ñett ñuy daal ci kanam nga naa mu leen nakkoon de buur ne ko yàlla mu xamal yow Ibrahima am na laa naka yàlla ma ci suñu aji nga lagu ci ngorom ak suñu aji xare na mu ci jotee de Ibrahima moom noonu la gisee waaw ci gisab jax noonu waaw ne yàlla mën naa dekkal lu lu dee ba noppi rek fekk na nag nit ñi ci léegi aare yeneen ci yëf yooyu jikko yi nga xam ne yàlla nga ko sabab ci jëmmi doomu aadama ñoom ñoo ko lamboo doomu aadama yàlla nga ko bindee ci anaasi wala baati ci yeneen ci cosaan yi suuf ak ndox ak safara ak jaww suuf ak ndox suñu xandee yooyu yooyu du xër ak nay safara ak nay safara ak jaww te ñaandee yooyu jub mer ak topp baneex ku ci nekk itam wut jabar teer daal di tëye kañaan nay daal di sëyeeg mbañeel mer daal di sëyeeg rëy daal ne xam nga nag moom moom nit moom moom amul jaral moom moom jigéen boobu rek ci boppam rek amul jaral danaa leen cër ak nay cër denc na kañaan ñett lool nay denc na mbañeel mer denc na rëy ak sa subaane nga xam ne moo leen juróom ñaari te moom mooy saa yi moom suñ jamono mu ngi am jabar juróom ñaari yooyu ñooy juróom ñaari bunti safara ci nit ki boo xamee ne jaam bi jaar nag ba kanam ba dindi juróom ñaari jikko yooyu ci moom te yëpp ñeneen ci nganaaw yi rek a làmboo rek bunti safaraam yëpp tëju na te dafay dal di yéeg mala footu sama ay rasere waaw yenenti nganaaw yi Ibrahima tànn seen yenenti jikko yi boo jaadee sa bakkan ba laabal ko ci yenenti jikko yooyu rek dal di yéeg mala footu sama ay naka Ibrahima defoon de soo xeexeeg sa bakkan ba bëgg lekk gi nga xam ne moo dal tam nga laabal sa bopp tey ba dindi ko ca xeex ak sa bakkan xër gi nga xam ne moom la baaxaañ dëkkee nga laabal sa bopp daama tawakkar lu la yàlla jox mu doy la nga laabal sa bakkan waaw ci dëggat tey bi nga xam ne moo nekk ci surat waaw ba nga xam ne waaw laabal nga sa bopp nga laabal sa bopp ci bëgg taar bi nga xam ne moo nekk ci waaw taaw waaw bëgg àdduna waaw bëgg sañse waaw bëgg baag ak bëgg ku la gis soo xamee ne yooyu waaw nit ci dindi na ko ci boppam rek waaw daal di dëkk mala kootu samaaye nga xam ne fa la Ibrahima nekkoon rek tafa bi kenn Ibrahima ala kootu samaawaati wal ardi waalam xamal na am na laa naka yàlla xasi suma ji nag la ma ci ngërëm ak ma ji xarit ma ci ngërëm tegoon ah jur gi sarax yaa ngi ko nag xëy na sarax nag bañ defe ne sarax rek la mu daal di leer masalu la fi na nalaw ñaañaa yunfiqoon danañu sadaxaam wa alal waay jëppeen fi sabilillahi ci yoonu yàlla ñi nga xam ne ñu ngi sadaxa seen alal ci yoonu yàlla xam nga nañ melam xam na sari habatin sam sap an batat saxal na ko saba sana bi da juróom-ñaari jub li ngi mel ni benn pepp bu saxal juróom-ñaari jub ci kulli sun bilatin aji nekk la ci wettu jub mi ato habatin téeméeri pepp de jub bu nekk ji yaa saxal téeméeri pepp xanaa loolu di juróom-ñaar téeméer boo xamee ne jaam bi sadaxa na benn yàlla daf ko koy sulandeel moom di ko fay benn ba muy fukk wala ba muy juróom ñaar téeméer de wala yàlla we daa fa dana ñu ful li ngeen isaaw ñaal ku mu soob wala yàlla waa seen aji yàlla nga ne lam alimun aji xam la mooy ngi defam rek laa xeeray ba nga xamee ne wàcc na Abdurahman ibn Awf ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe naa sama genn wàll xalal yépp ci yoonu yàlla yonent ne ko yàlla na yàlla barkeel li nga joxe ak la fa def alalam ja di di di sakkanam nii sax da nga xam ne tey moom mujj na alalam xam dayore waaw moo ëpp la xaare na gannaaw yim dee ay ay ay ngarka lañu sabeem di def prix yi nga xam ne moom la toolam waaw di ko dajale prix bi nañ ko miraase jenn jigéen ci ngërëm ci jabaram ne ne waaw rëbbam semaine bi nga xam ne tey meedu yàlla moom di ko nëb nañ ko jox rek juróom ñett fukki ci néew bi door waaw ba mu ñibbi waaw di ko nëb miraas waaw ñu daal di ko jox loolu rek rek nga xam ne dafay liggéey door kon waaw bari na waaw ci dinaa smaani naa saam te la joxe junneel gëlëm yu sëf waaye bër rek soole ak téeméeri naari góor yu ànd ak seen lalte ak seen i seen i sëf waaw ak junne li door mu sotti ko ci kankam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent suna yàlla ma dara suna ni maa faala baabal yàlla Usmaan jëf dootu ko leer gannaaw tey nit man day gëdëm naa ko yow yàlla yàlla ko gëdëm rek soole masali la fi naa melal ñooña yunfiqoona danañu sadaxaam wa alal waay jëppeen fi sabilillahi ci yoonu yàlla kamisali habatin kenn lay toppale am ba saxal nañu sala sana bi la juróom ñaari jub ci kulisin bi la sin aji nekk la ci yépp jub ñeeti habatin téeméeri pepp naka noonu seen sarax yi itam dañ koy filane la si juróom ñaar téeméer wala yàlla yi daa fa danañu sul li ma ne saa ñal ko mu sol wala yàlla yaa seen aji yàlla nga ne leen alim aji xam na mu ñu ko doon sarante ren fekk yàlla dafa jot a wax ne man jaa abil hasanati fa lahu asru amsaalihaa suñu yonent yàlla ci yàlla fay ci xeetam si ne yàlla dolli sama xeet mu ne sama sali habatin an batat sala sama bi la fi kili sun bee sun maata habatin mu ne yàlla dolli sama xeet mu wax laa yëre ren démb man ko dolli yaxruju laa xaban hasanan fa yudaa'ifu lahu ad'afan kasiiratan loolu ëpp nañu juróom ñaar téeméer de waaw mu ne yàlla dolli sama xeet mu ne innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri hisaabin yàlla dana leen fay fay goo xam ne amul ab lim nam de waaw ñu ne yàlla gërëm naa gërëm naa gis nga jaam bi soo xamee jullit am na itte itte woo naa def lu bon te defut ko yàlla di ko ca bindal benn bàkkaar su fekkee itte naa def lu bon def ko benn yoon benn yoon lañ ko koy bindal su fekkee ni sitte na def lu baax nag te defu ko yàlla bindal ko ne def na ko su ittee def lu baax def ko yàlla di ko julli benn yoon fukk la koy julli ca gën jëmee ja moo tax ba yonent ne toskare ñaal na koo xam ne yëkki na ko ay benn benn na ko ay fukki fukkal de lu bon soo ko defee benn yoon lañ koy julli lu baax soo ko defee ñu julli ko fukki yoon ku jëkki dafay bon ba nag dafay baax baax day bon da ngaa jéggi dayoo ci bon de te it ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy julli jëfi jaam bi raqib ak xatiib la raqib mooy buur bi mooy nekk ci sa ndeyjoor xatiib mooy mu nekk ci sa càmmoñ rek tey de boo defee hiiw raqib moo koy julli fukki yoon wala juróom-ñaar téeméer wala lu yàlla dogalal rek tey de waaw soo defee lu bon xatiib moom balaa koy sañ a bind mën a tàgg raqib raqib ne ko mu ñëw ko ñetti waxtu waaw mu ñëw ko waaw su mu ñëwee waaw waxtu yi nga xam ne moom lañ ko war a muñal nag te baleer yàlla toujours waaw defu dara lu baax lu ko fara ñu bind ko benn yoon nag tey waaw suñ mbokk mi day sagan na waaw su jëkki nag ba benn benn yooyu nga xam ne yii ñu bind ko yi bañ koy bind ëpp na fukki fukki yi daal ba mu yokk na mu laa tartu allafina ñooñu yéen fi xool danañu sadakaam waala ñu ay jitteen fi sabilaay ci yoonu yàlla su ma laa it doona tapp tafalti ñu maa am faqoo lañu sadaxe man nan ñaxeel wala asan du jaageen lor koo xam ne sadax nga waaw sa moromam jaam te ñaxuloo ko gannaaw ga ñaxeel mooy nga ne ko maa la defal lu baax maa jàng sa mbit su taxu ko nag man nga tara waaw loolu loo ko mooy nga nettali ko si koo xam ne waaw bëgg mu dégg ko jam fan waaw maanaam ne di di ko defi man wala am nit soxlaam waaw nangam la doon ndax fajal naa ko loolu mooy lor koo xam ne sadaxa nga nag yaar yooyu yëpp defuloo ko ci ñaxewuloo lorewuloo lay ñaan la la ajuroo ñu wàl seen li ndara bi ko borom seen wala xawul dee ci ragal xale yi ñoom wala am ngeen ñoom yettan ñu jàppale ci àlaaka rek waxante xawlin wax ji rafet maaroofin jënd ji xam ci yoon ak delloo aji laaja wa maxfiratin ak suturaal xaajoom xayrun li moo gën min sadaqatin ci sadax nga daa aajo gën a topp ko asal lor de waaw wax ko wax ju rafet te jàpp ngant waaw te suturaal xaajoom ñett loo ko sonn sax moo gën nga sadax ko ba noppi gannaaw ga nga di ko ñax de wala wala xaliin aji dong la mu nga di sadaxi jaam yi xaliin aji xelam di ko def de te su fekkee ni tey yaa ngay sadaxe di ca ñaxe yàlla sax amul taala gi sadaxe kenn waaw te bu tax ko nag ni ñu ñuy xam bugal kon ku ñaxe rek wala nga lore ñu far la bugal rek te rek yaa yàlla si na amoon waaye yéen gaa ngi jàng alquran waa tukkiloo waaye bu leen yàq sadaqaatikum ay sadax seen waaw bul mel ni ci ñaxe wala feeg lor bu sadaxe ba noppi nga xam ne war kon nga am yoolab yàlla nga dem ñax ka nga sadaxoon ba ñàkk sab yool wala nga lor ko rek kalla fii tam yaakaar sabax si kaaka yéen fekk dana mu sabaxe maa la wax alal amri ah maa si ngir ngistal nit ñi mel ni fii koo xam ne dafay sabax te jublu ci yàlla xanaa ngistal nit ñi rek la ca jublu nga xam ne waaw mi ngi joxe waaye ñu ne diwa tabe rek waaw loolu rek la ca jublu kooku itam yàlla du ko fay dara de waaw wala yow ñu ne dañuy bilaay ci yàlla wala yow di ko bés baax rek daal di ko gis mais sama misaalam sama sama sosaalam sam ka jura tax la ale yaa ji nekk la ci kawam turaabin si fa asaaba ya ko jot ko yaa bi ñu waane fasra ko tam mu jël ko xalgan dara nekkut ci mooy laa yàq bi rek fekk ci ñu waala seen ci la ñu nekk ko ci la ñu sabboo ndot waaw si naa fekk tam sama xam yàlla di ko dafay dara de waaw la suñ gistal ndaxte waaw kay mel ni pis ko jiir ci kaw bañ war a tax waame waame ci kawam parce que yow baax na ba ñëw tudd nga fa di fekk saraxin noonu la ko njëkkal di yàqare yow itam ne sa laal wa falam yàlla dana xam ne ñetti jaam peñ tam yàlla taxaw leen ci kanamam fii daf doon jàng alquran ci waxtu guddi ak waxtu bëccëg yëpp fii daf doon jàmbaar ji jihaad ci yoonu yàlla bés tey fii daf doon ku tabe di maye rek yàlla na leen li ma doon joxoon ana lu ngeen ci def jàngkat bi ne ko man day dama daa jàng alxuraan ci waxtu bi de waxtu bi bëccëg mosuma bàyyi de mu ne ko jubli rek la moom dam doon jubli rek ñu ne diwum jàngkat bi la de loolu nga ci jubli woon waxoon nañ ko waaw amuloo fi man genn pay yóbbu leen safara de waaw fii yow loo def ci wërsëg yi ma la joxoon dama daa tàll sama loxoom day jor ak càmmooy di maye da ngaa bëggoon rek ñu ne diwa tabe nit ñi waxoon nañ ko loolu ay sa tay yóbbu leen safara waaw jaar kat bi xam naa sama jaar ci dóor nga yor ak camion waaw dañ koy dolli waaye jublu la nga xam da ngaa jublu woon rek ñu ne di waay ñoom rek tey waxoon nañ ko waaw loolu mooy sax tey rek tey rek ñu ne ñett ñooñu ci ñoom lay taal safara rek la waxee rek waaw xam na ba ni jaam di jëf mu soog mu rëy yëpp ñoo ca am bu mu fàtte rek nga jublu boromam rek bañ a jublu ñeneen ci boromam beneen turu borom bi amul benn fay rek wala ala laa di jubal ci ñaar xol ñaar kaafir nañu di wax di yàlla nag waaw du jubal waaw ñu nga xam ne koy dañuy yéefar de yonente sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog ibni sa jaral mu ne ko looy wut noonu yàlla bi mu ne ko yàlla ma yebal ci yow ndax nga laaj ma lenn yàq naa la tontu mu ne ko wax ma ana ñooy dama bañ ci mbindeef yi mu ne ko yow sa gannaaw góorab julit bu maandu waaw sa gannaaw cosaanal borom alal ju bëri tey suufeel boppam sa gannaaw borom xam-xam boo xam ne dafay jëriñoo ci xam-xamam waaw tey ragal boromam di toroxlu yàlla waaw ak jaaykat boo xam ne dafay wax dëgg ak ci tuub tuub boo xam ne bu dëgg la ci moom ak ci julli guddi gannaaw bi ñëpp nelawee waaw ak ciy dox ci njëriñal waaw nit ñi ak koo xam ne dafay sadaxe ak koo xam ne waaw dafay jàngal Quran waaw ne ko ñii ñoo ñi nga xam ne waaw ñoo xatal ci àdduna si rek waaw mu ne ko ñoo bëgg nag waaw mu ne ko buur bu dënd buur luy tooñ waaw ak koo xam waaw te kat daw rëy ni waaw te du sabaxare waaw ak koo xam ne séede joo xam ne dafa nay waaw te mbëru séede yi nag borom xam-xam nag soo xam ne tey dafa nay boole ja waaw te secteur ni kooku moom dañ koy fal sax muy saytaane su nekk ci suñu jiit waaw di ñu di ñu dimbale waaw ñooñu itam ñooñu yoo xam ne tey ñoo di ay xaritam na ñooñu ñi nga xam ne tey ñoo koy dimbale de ak koo xam ne dafay jëf ngir gis kala nit ñi ak koy jëf ngir ne ko waaw nit ñi wax rek laa waxee de ak koo xam ne du yaram waaw ñooñu ñoo xarit yi ñu fekkee de ñu def yéen la bal wa masalu lazina melaw ñooñu yunfiquna danañu sadaqa amwaalahum ay jib jib seen ibtiqaa mardaatillaah ngir sàkk ngërëmal yàlla wa tasdiiqan ak ngir dëggal ab yool min anfusihim ci bopp seen ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal ngërëmal yàlla rek lañ koy wut ak dëggal nañ ne yàlla dana leen jox ab yool wuute na nag naa fekkee kamasali habbatin kamasali janatin kam tool la jëri jotin bu nekk ci tindi asaaba jot na ko waa bi lu ñu waamin waaw tati comme jafe ukulaha meññatam jafe ni mbir mi ñuy yaaru ci la de ci sadaxa nag te yàlla rek a tax kooku moom yàlla daf koy sil mi ngi mel ni tool boo xam ne dañ koy jëmbat ci ay tindi waaw tindi joor kaw kaw bëri waaw kaw waame waame waame waame ba nga xam ne garab ga garab ya naa meñ ba mën ni meñ ñi nag lépp liñ daa meñ ñi meñ ñi ñaaram waaw fay la ñu si waa ndem jëti ko waa bi waame fattalim bandam su fekkee ni dañuy def taw bu bëri bu taseeg bandam boo xam ne tey daf koy taw saa yu nekk waaw mooy taw bu bëri waaw daal mu sax ca rek ba nga xam ne meññam na waaw sell na ñor na kooku mooy misaalam ci sadaxa te jublu yàlla yàlla de wala yàlla ba su ñoo xam ne ñu ñoo tam lañ soo dañu jëf ko du leen ko fay de ayo di soppit a di sin kenn ci yéen an takkona bu nekkat lay ñeel ko jannatin tool min naxiinin ci laalamu ay tandarma la wa anaabin ak xinab tajri dana daw min taati a ci suuf yan lan haaru yan yanant lan haaru ay yan lay ñeel na ko fiha ca tool ba ay meññat min kulli samaraati ci képp ci xeetu meññat yi wa asaaba sa mbir moom gat na ko al kibarul màggat wala hoo te ñeel na ko suriyatun ay doom jana saa yi di way ndaw ñu mbiru bi dara fa asaaba ta jot ko insaarun callee fii wala ñu nekk rek ñoom ñaarum safara xam xala xam tam lakk rek kenn ci yéen burgu ndéew kenn ci yéen burgu waaw di jëndat ab toolam di jëndat nit di nag ba nga xam ne am na toolam boo xam ne waaw fanam yoo gën a jeex fanam yoo di jeex yan yaa ngay bay ñëpp ci ne ñëpp moo xam ne daal njabootam sax yoo see dundee am na ko ca toolam waaw ñu yaakaar ne tool yooyu nag dañ ko mën di di njabootam bu dee bàyyi ko ak njabootam ñu dundee tool booba sala yaa bàyyi ko nga wax ndax safara ñu ne lakk toolam nekk bi ak bi daay te ndax kan ci yéen bëgg loolu loolu mooy ci talaxa te ñu te ñu jigéen ñi ñu njëkkal rax na waaw dafay nekk ca bàmmeel ya di weer waaw yi cëf cëf yi ba nga xam ne dara defu ne lu ñu yëngu ci sa bàmmeel nga yaakaar ne ngay la ko tasaare waaw njikkal na la njikkal yoon daal di sa soppeeku ca la waral sa dara ak daal di ko lakk rek ñu daal di ko bare ji jiw doon yàlla dafay ne kan bi nag ji jiw doon ji doon ñu laa rek doon yàlla lakk ñu yàlla laa ci kaatu yàlla xaram laa la ko bee en ko takka dara ñu ngeen xalam rek yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran am fi ko afaka leen min habbatin min tayibatin ma kasabtum ci aji teey la ngeen fàgg de lépp lu ngeen fàgg ci alal waaw na ngeen génn asaka yore wa mimma axrajna ak ci waxi teey la ñu génne lakk ñeel ak ñeel dara ci suuf ak li nga xam ne yàlla génne na leen ko ci suuf ci xeeti gàncax waaw ak i meññat ak waaw ay pepp loolu na ngeen ci génne asaka wala tayammamoo te di leen jiblu alxabiisa aji ban ja minu ci lañ tuddeen suñ fi koone mbir moom na ngeen asakaale ci ko ci moom te bil ne ngay seet la gën a bon ci sa tool nga ber ko waaw def ko ni asaka ja wala suñ te dee ngeen di axasi ngeen di ay jàppam ilaa am tox ni dee bare di ngeen gëm nëpp te fekk na yow yaa am sa bañ mi nga xam ne soo koy sab sax da ngay gëm ni nga sab ne nii noonu noonu ngay saraxe déedéet la nga bañ ba dimbale ko ñu yàlla it bëgg ko koy saraxe xamal la nga xam ne noonu nga gën a bëgg nga xam ne waaw dimbale ko ñàkk nga joxe ko loolu la yàlla nangu waaw daal soo sabee la nga xam ne yow yow sax péexi nga ko ne noonu ngay saraxe yàlla it bëggut yàlla nga xam ne ñu wax na ko yàlla xam ne aji doy lañ yéen seen sarax ñu suñu sant lañu de te da ngeen xam ne yàlla doy na yéen yéen yéen seen sarax yéen yéen a ko xaaja de sari si yéen saraxe waaw sàllal leen rek dana yéen yéen saraxe loo xam ne yéen la njëriñ rek ak seytaane seytaane yéen di suñ dana ñu ragal loolu alfaqra ñàkk seytaane ci iblis xam nga xamuñ dara moo tax de ñàkk ñàkk bin bi di meloon moom la lay tëppéeree moom la lay ragal loo boo saraxe def la wax bul saraxe boo joxee nii waaw da ngay ñàkk de doo daa am loo dugal sa jabar yi doo am loo bàyyi sa doom yi waaye am na suñ tamit digaloon di sa saa ci may iblis moom dafay sant ni nga may rek saraasaka wallaahi yàlla moom yaa ngi defal danañu defal leen mastre kon mba mënu ñu tukkal ko moom ci seeni bakkaat wa sabram ak wërsëg yaa yàlla moom ñu naa la sabaxal ma baal la say bakkaat taxiital la la ñoom iblis ne la bul saraxe nit ko ne boo ko joxee ñàkk rek yaa musiba dal la de wala wala waa seen aji yàlla nga yële ñu alim aji xam ne ay mbindee xam de amul kenn sarax boo xam ne da nga ko saraxe li ne sakkar ci nañ ko ci loxol juróom-ñaar fukki seetaan waaw iblis daf dee ngëb dee di dem nit waaw ñu sakkar bi waaw keneen seetaan ngëb ba ba muy juróom-ñaar fukki nga sakkar bi ni ko saraxe la affaire waaw taay ne mu ngi lay waaw ragal loo ñàkk li lay digal xaay rek soo def yàlla itam mu ngi lay dool mbaam waaye te mu ngi lay dig itam wërsëg yoo xam ne dafay xëy rek yonent bi wax ne ne benn jant boo xam ne gën a sant mu ne yaari malaaka bi li ci wet ak ndaw jooram bi li ci wet ak càmmoñ malaaka mi ci wet ak ndaw jooram dafa wax allahumma aati munfiqan xalafan yàlla kii dindi la alam yàlla ko jox la leen la fee wéete xalafam bi ñu waxee xee moo tax xale bi bëree bi bëri sax ngay gis ñu def kolof kolof kolof kolof ñu ne ñu ne baata malaaka bi nga xam ne ne itam waa malaaka bi nekk ci càmmooy jant bi itam mu nga naa allahumma aati min si kon xalafam de waa képp kuy tee alalam yàlla la xalaf xaay la waa moo tax de xaraf du tax a ñàkk mukk de ku la gën a joxe rek waa moo la gën a bëri waa wërsëg yonente ne ne sallallahu alayhi wa sallam sarax ne du yàq jaam lu ne ak yëkkati ko rek ci gën a suufal boppam waaw nit ñi dañ koy gën a màggal rek soole waaw saraxa itam du wàññi wërsëg mukk de ci gën a joxe waaw kooku ñu gën a bëri la rek la affaire waaw dañuy ñaari dërëm la rek di nga ci tënkali boo koy joxe di ci mbëgg mi daal di wàcc rek la affaire boo ko tëyee itam waaw ba ca mbëgg mi dootu ñëw rek la affaire am na benn wàll yi nga xam ne daf gën a wër ci àll yi rek di jaamu yàlla waaw soxla yóbbam boo xam ne waxtu lekk jot na rek yàlla sànni ko benn lu ñu door mu jaay jënd lu lekk rek añ waaw ba suur nekkati ci jaamu yàlla am boo léegi waxtu la jotee rek dinaar bi wàccati muy dox nag bañ jox ko benn dinaar ñu fab def ci poosam rek rek waaw muy dox ba waxtu waa dinaar ba doon wàcc ñu mu ne ne dinaar ba wàcc rek laa ko rek mu ne yow sama borom mu ne ko al alqima fil jaybi yaati kana fil xaybi waaw xam ne lu nekk ci poos bi day la ci xay bu soobee nga ne ñëw rek waaye def ci sa poos xay bi di joxe loolu ñu nekk yéet yi danañu jàpp alika naka xam-xam biy jariñ mën ya saa ku ñu soob yàlla day jox xam-xam biy jariñ kum soob yàlla ñu ko jox kawe man yootaa walaay ku joxeef na ko alika naka xam-xam biy jariñ waxad utiye joxeef na ko xaaran awil kasir ñu def ji jëriñ hikmati moom su ko yàlla jox jox na la yu bëri goo xam ne du tàggal yooyu nit boo da nga waxoon pexe goo xam ne pexe gattatu la de xam-xam bi jëriñ téere yi ñetti xaaj lañ téere yoo xam ne lim xam xam-xam yi xam-xam yi àtte rek la xam dafay liggéey nit ñi rek te moom li ñuy liggéey sax di ko jëfee su ñëwee daal laaj ko mu ne la nangam la yoon yaa waaye moom yoonam moom du topp yoon boo gisee ne moo mel ni sondeel mu ngay leerale nit ñi waaye mu ngay lakk boppam rek laa waxee day ak seede yoo xam ne dafa xam yàlla kooku mooy ki nga xam ne yàlla jox na ko hikmatu ak seede yoo xam ne dafa boole yaar yëpp nag waaw xam ne dara moom xam na waaw xam-xam saa rek tey di jëriñ nit ña waaw ci xam-xamam waaw koy solal diggante borom rek tey waaw kooku mooy ki nga xam ne tey mooy ci natt rek tey mooy ci njox ci natu waaw sidina Ali wax na juróom-ñeenti baat ñett ñi mi ngi ko wax ci biyaale mooy yàlla ñett ñi mi ngi ko wax ci hikmatu waaw ñett yi mi ngi ko wax ci adab de waaw wax na ci biyaale mooy yàlla ne yàlla doy na ma tiitare nga nekk di sama borom day na ma tiitar ma nekk di sa jaam yow nag mel nga ni ma neex yàlla nag ma def man itam ma mel ma mel ni ma neex ma la neex yow de waaw loolu wax ci idéale borom waaw wax na ci matu ne day na wani ku la neex rek maramam nga jiir përin risaas lu mu bëri na bëri yee boo soxla ci moom dara rek naa leen nga rek jaxal ku la neex rek sangam la rek laajal ku la neex kooku jaamam la rek rek waaw hikmati nag soo dee soo dee sir nañ ko ci siri weeru nga am ko li gën a wéet ci turam mooy xam-xam boo xam ne ñu ngi koy jàppe ci yàlla ci lu waasitatu te duwul ak yeneen yeneen yi ñu ngi jàppe xam-xam ci yàlla waaye ñoom ay yeneen lañ xeetu yeneen nag tëj nañ buntu ak yeneen yeneen du am gannaaw yeneen yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam waaye itam moom yeneen xam na ne bari na ci xeetam ñi nga xam ne dañuy jàpp xam-xam ci yàlla ci biir yàlla sete moo tax ba ba muy dee mu ne allahu xalifati fii dinde ne yàlla la def ñuy xiital ci xeetam xam-xam bu bàyyi ko ci yàlla ñëw ci jaam boo xam ne du itam yonent loolu la ñuy tuddee hikmatu dañ ne hikmatu daal tegta la boo xam ne ci xolab jaam ba la jublu ci koy sànni noo di yàlla mooy nag mënu mënu saa am de moom du mooy yàlla du sànni mooy rek tey day fekk kuy dal ci xalab jaam te ko sànni moo di yàlla waaw loolu mooy moo di suñu ko rek tey day xal ba dafay jokk ca péeb yàlla ba su jokkoo ca péeb yàlla ba su jaam bi di wax sax wax nga jógewut ci moom da nga jóge ca péeb yàlla ba dafa romb ci làmmiñam rek moom sax mooy njëkk a jëriñu ci li muy wax su ko dégg itam nga ca jëriñu loolu mooy ci nekk rek su fekkee nag ñu wax bi ci bakkan ak jaam bi rek la jógee ci làmm yi rek la jógee mën da weesu natt yi rek laa waxee de waaw ki koy déglu lu yàgg yàgg di ci jëriñu ñu wax it wax ji bu bëree rek wala kalam xam xam de loolu mooy sabana yi ci nekk waaw yow tuuti ñu jox Aliou Kine tax na xam bi jëriñ la ñu saa ci ñu sol loolu yow tax ku joxee na ko Aliou Kine tax xam xam sa xaroot yow joxee na ko xaaral ñu ko ñu bëri de wax na ci xam-xam ne wa maa uutiitum minal ilmi illaa qaliilan ne xam-xam li nee la ci joxe waaye ki nekk nee mu ne moom yaa dalay ko mat dafa xadee fi asaaran kasiran de mu ne zakkaru waaye yaa di ci ilaa wala lan jaabi mara waram kani sellam wa ma anfaqtum li ngeen sadaqa min nafaqatin ci laala moom sadax la aw nafartum ina ngeen nifar min nafrin ci laala moom nifar la te matal ko indi laa ne ko yàlla yàlla ñu yow ñu xam ko te dañu leen ko fay ina li saani ñu yéen ñu yàlla way teel ñu way tere azaka wala muy mbay matal say nifar ñu leen feer way tere ñu wala nguur de in tuddee ndem sañal ngeen sadaqaati ay sadax fa ne ma baax na la si yéen moom la def sadax nag boo ko feeñalee def nga lu baax feeñ nga lu baax wayn tëgtee ndem nëbb ngeen ko wetteetee te ngeen jox ko alfuqaraa wal matagin te yow ñoom xaar ñu gën la ko ñuy xelal su fekkee nëbb nga ko nag ngeen sadax fa ba kenn gisu ko nga jox ko nit ki ma rek waaw loolu nag ñoo gën de yonent na sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaar yàlla leen di xelal ca ron keroog xarafam nga bés ba nga xamee ne keroog it li mooy keroog nga def ci jëkk ko mooy juróom julit bu maylu ñaareel ba mooy ndaw lu sosu ci jaamu yàlla daf ba dox ci ak ndaw ñetteel ba mooy ñaar ñu soppante ci yàlla am ci yàlla ba taxali ko ci yàlla waaye ñeenteel ba moo koo xam ne xolam dafa ay ci jàkka ja di ko jëlee daal ba yéen koy dolli xolam am sa dëkk juróomeel ba moo tax xam ne jigéen ju rafet ju am dara joxe na ko ci boppam dina ko dama ragal yàlla juróom beneel ba mooy ci wéet di tudd yàlla day bëtam sa teeku sa terangañ waaw juróom ñaareel ba moo tax xam ne sadaxa na ci ndey jooram nëbb ko ba càmmoom xamit li nga xam ne moom la ndey jooram sadaxa rek laa waxee de waaw sadaxa ji sa ndey joor nëbb ko ba sa càmmoom yóbbu ko loolu soo demee ne ci jaay rek la ko nit mën a defee soo defee ñu ko def ci jaay dañ ko def ci denc ko dañ ko def ci jëflanteeg ñu léegi daal nga ñëw waxanteeg nit pilaa naka lay jaayee pilaa si ñu ne ci pilaa koy jaayee soo wóor na ne soo wàññi loolu mu jaay la ko sax ci juróom wala juróom-ñett nga bañ a wàññi rek waaye dal di ko fay ci piwa waaw ngir wóor ni ñaari nga xam ne mën nga ko wàññi da nga ko sarax moom sax du xam ne sarax nga ko parce que keneen du ko xam loolu ñu ne sarax gi sa ngay yor waaw laay ji wàcc ñu jàng wattu ko ñu jàngal lu yonent bi def de ñoom ñu génn dem ca waaw ñooñu la yàlla wax ne ñeeman ñooñu de wala booy sadax sadaxal ñooñu de laa yastatiyoona attantiñu darban ak dox bi lar di ci suuf ñoom duñ jot a tukki ngir yaxantu waaw ci wuñ benn métier la seen morom ya ndax waaw ñu nga jàpp seen bopp rek waaw ngir yàlla waaw nekkal yàlla rek di jaadal yàlla ak a jàng alquran ak a julli yaxte doom dana jort leen ak jaahilu aji réere mbitteen ax li yaa añu di way xamal mi temps fu fi ngir sagu ko de te dañoo sagoo sagu duñ laaj kenn dara te ku leen gis sax ngay defe ne dañoo am dara daa def na nga xam leen di si naam ci mandarga seen waaye nag boo leen gisee rek waaw melaw ko am ak ku ñàkk yem naa xam waaw ca waaw toroxlu ga ak jeexi ci coono feeñ seen yaram ya da nga xamee rek ne amuñ dara de waaye nag da ngay defe ne ndax risaas lañ ndax duñ laaj dara de laa yasaluna laaj te ñu naa sa nit ña dara bay sa jamal teen ilhaafan ak sa jamal duñ laaj nit ña dara de waaw sakkaat leen sa jamal wa maa tunfiqoo lu ngeen saraxe min xayrin ci daara moom aw yiw la ina laa naka yàlla alimun aji xam na moom fii ci moom lépp allasina yunfiquuna amwaalahum bi layli wa nahaari sirran wa alaaniyatan kooku lu ko wasal wàcc na ci sidna ali bi talib dafa liggéey anoon waaw ci toolab yahud ba am ñeneen ci dërëm mu ñëw nëbbu saraxe benn dërëm feeñ saraxe benn dërëm guddi mu saraxe benn dërëm bëccëg mu saraxe beneen dërëm de yàlla ne allasina ñaaña yéen fi koona danañu saraxe am waalawum ay jubteen bi léegi ci guddi ba naaree bëccëg dërëm ci lu nëbbu waalaan yetan ak lu feeñ wala um ñeel na leen ajuróom yooli jëfeen de ten rabbi fa borom seen wala xawfun dees ragal alayhim ci ñoom wala am deen ñoom yesan nañu jàppal la ci yàlla xel allasina ñaaña yaakuluna danañu lekk riba riba safaanab sadaxa ngoog sadax dafay barkeel xalal dafay dolli xalal ci dee ci melo dafa mel ni mooy wàññi sarax bi nga xam ne dafa mel ni da ngay wàññi sa alal kooku moo koy yokk moo koy barkeel am maari baa bi nga xam ne dafa mel ni dafay yokk kooku mooy gotti alal waaw moo koy wàññi rek te yàlla tuddee sarax nag ma ngay tudd riba safaan ba rek mooy di dolli ci jëflante ci ceexe yi wala ñam yi ca dig ba wala ca càmb ba moo na taxaw fi ñu buur fi ñu tukkee ci seen i bàmmeel ilaa kamaa yaqawmu dara kem buur ak ga ga dana dana dana ilaa kamaa yaqawmu dara kem buur ak waaja ilaa kamaa yaqawmu la si dara kem buur ak kaaga yata xabatoo dana normal ko seytaanu seytaane mi nal ma ci daara moom jinne la de buy buur ci xamelam fay buur mel ni ku jinne jàpp rek waaw bu buuree rek daanuwaat bu buuree rek riba yettank ko mu daanuwaat de ba safara fekk ko fa leen daalika loole wàcc ci moom gaanam loole wàcc ci ñoom lekk nga ci ribaaya gaanam ci sax naka ñoom xaaloo wax nañu ne dina mal bàyyi naka jaay ne su riba kem riba la ñu ne jaay kenn mën ta jaay te defuloo riba waxuñ dëgg àlla laaw daga wa àlla laaw daganal na yàlla al baya jaay wa harama haramal na mu riba riba jaay moom dara newu ci yàlla daganal na ko waaye jaay la wax de waaye nag riba kooku moom yàlla haramal na ko de ne jaay ak riba mënu ñoo taggoo nag waaw doon du dëgg de waaw nar la wax xam ne hurujkat yi waaw yaxantukat yi huru yi ñoo koy wax de faman jaaw ku jot na ko ma ngay sa nag waat min rabbi tukki fa boromam fan saa tam tay sala ñeel na ko maa sala fa la dawe woon na mu de koo xam nag ne dégg na doon na jëflante riba di leb leen dërëm ñaari dërëm ba mu dégg ne yàlla haramal na ko nag mu daal di ko bàyyi kon nag la mu yoon yàlla baal na ko ko de waa am roxo mbiram jéggaleem nag da laay jëm na ci yàlla waaw ndax yàlla baal na ko ci àllaaxira am du ko baal nag loolu diggante ma yàlla la del ba mën a aada waaye ku dal na mu gannaaw bu ko sëkk bi jotee walaay ka ñaare ga saabu neere ñoo ram safara rek ñoom ñoom xaalis dana way benn ñu fi àjjoo wala safara dama ko laaw riba bokku la ko wasal wàcc na bañ na yàlla ngi aaye riba te moom dafay def riba ndax ñu ngi ne ko saraxe benn ñu fay la fukk wala juróom ñaar téeméer ba noppi ñu bëgg ñoo aaye loolu wër na yem ak laaw dana gotti yàlla riba riba wóyur bii waaw te muy dolli sadaqaat yi sadax de dañuy fente sadax ak riba ni roowuñ de ndax riba moom yàlla tere na ko te gotti na ko dafay demee barkeem du yàgg yàgg borom riba xaralam dafay mujj di gotteeku di gotteeku di gotteeku waaw ba mujj ñàkk ba noppi mu fat ko lakk de waaw dafay gotti soog a lakk sarax nag kooku yàlla daf koy dolli de waaw képp ku saraxe yàlla daf koy xuutalal waaw barkeelal ko itam waaw ba ba muy waaw dem aljana itam de wala yàlla laa yéemu lu mu yool ku la kafaar mbir bu weddi kon bay daganal riba ati nin ku di bakkaata kon de inna la sina naka ñaaña amano gëm nañu waa amino tañ jëf saare ati farata ak naafile waa xaamoo tañ taxawal salaata julli waa taw tañ joxe sakaata asaka loolu ñeel na juróom yoolu jëf seen ne na rabbi fa borom seen wala xawkun di tragal aleen ci ñoom wala am ngeen ñoom yetta nañu jàppale ci yàlla sale yaa ayyuha alladina amanu yéen gaañi gëm alquran ittaqulaa ragal leen yàlla wasaro bay leen maa baqee la des na mu riba ci riba in kuntum dem nekk ngeen moom ne di way gëm am ay julli yu nuur ne ñoom day wax dëgg dootuñu leb le riba waaye li ñu taxoon leb le nag ba ñu amee leen ko moom daañu ko fayeku yàlla ne leen ragal leen yàlla te bàyyi li desoon ci seen bati riba yi ci nit ñi bàyyi leen ko laa fay lam taxaloo dem defu leen nag faasano xam leen te ar bi ci xare mi ne laay bu duka sa yàlla war a sooli yaakam yonentam de su fekkee nag ni waaw fett ngeen ne da ngeen di waaw tappari baa gannaaw bu tëkk bi wàccee na ngeen xam ne yàlla takk na xare ak yonentam jëm si ci yéen de yàlla takkut xare ngir benn bakkaat lu may ñaari bakkaat rek lekk riba wax na ne takkal na xare waaw lekk katab riba ak kuy noonu waliyu yàlla mën naa daal di waliyan faqad azantuhu bil harbi amul benn bakkaat nag boo xam ne dana tax yàlla takk xare lu ma yooyu yaar fa in lam tafalu faasanu bi harbi min allahi wa rasulihi wa in tubtum ndem tuub ngeen wala kum ñaana leen rawasu amwalikum kasaani jubteen de laa taslimuna dolliti leen dara wala tuslamuna defut wàññi leen dara de waaw te muy dolli ak sadaqa bi sarax de dañuy fekk sadaqa bi baa ñëwoon de ndax li baa moom yàlla tere na ko def fat na ko dafay gën a barkeem bu yàgg yàgg bu seeku waaw comme ni ñàkk ba noppi ba ko lakk rek waaw dafay gott ko lakk sarax nag kooku yàlla daf koy dolli de waaw képp ku saraxe yàlla daf koy wutalal waaw barkeelal ko itam waaw ba mu waaw dem aljana itam de wala yàlla laa yi wulu mu daal bu la kafaara ñëpp rek yaa kon day dagana bi daa ab yi ñu ba la ba ngi ñu na la dina naka ñoo amana ko ñu amana ko ñu faara ak farata ak naafile waaw xam nga ñu taxawal balaa ko jiddu waaw dañ ko joxe sa kaaba afaka law ñu na ñu ñu war jëf seen ñu na rabbi ko borom seen wala xafu ñu dira wala lay ñu wala ñu ñu yëpp ñu ñu ko ko la ko ya ayyuha alladhina amanu ren dañu ko alquran ittaqullah ragal yàlla wasarul bayu leen maa bàqee la def na mu riba ci riba yi ci suñ dem nag yéen moom ñu ngi gëm am ay nit ñu wër ñu ñoom day wax dëgg ci dem riba waaye li taxoon def nag ba ñu amee leen ko moom daañu ko fayal yàlla ne leen ragal leen yàlla te bayu di defoon ci seen poti riba yi ci nit bàyyi leen ko laa wax day ñoom ko faloon dem te bu leen nëpp paase ñu xam leen te at bi ci xaram ñu laay bu dafa yàlla war a sulu yaakam yeneen tamit su fekkee nag ni waaw képp ngeen ne da ngeen di waaw kaffari baa gannaaw bu tudd bi wàccee na ngeen xam ne yàlla takk na xare ak yonentam jëm ci yéen de yàlla takku xare ngir benn bakkaar lu may ñaari bakkaar rek lekk riba wax na ne takkal na xare waaw lekk katab riba ak ku noonu waliyu yàlla mën naa daal di waliyan faqad azantuhu bil harbi amul benn bakkaar nag boo xam ne dana tax yàlla takk xare lu may yooyu yaar te in lam tafalu faasilu bi harbi min allahi wa rasulihi wa in tubtum ndem tuub yéen wala ku ñu xanaa def loolu si wàllu ji te saa di gis yéen de laa taslimuna doon ci leen dara wala tuslamuna deful wàññi leen dara de yooyu kaanu dem am na loolu rek suñu boromam ñàkk banaa bi rasul waaw war na leen ak yéete ilaa may suratin ba ca waxtu jàppandal de waaw boo xamee ni xamee na la bon wala laaw fay fay fay jàpp mu wóor la ne xamul waaw nga mujjee ko ba ca waxtu waxam de boo xam ne ñu ne la waaw boo xam ne daf ko amee rek bon waaw taxamul mu mujjee ko yàlla dana ko waaw jërëjëf jàkkaare waaw ci jàkkaare àllaaxira def waaw ñu ko sadax te man xeer ñu nag ñu ne def ba nga wari na amul nag yàlla ko sadax naa la ba par loolu nag moo raw def ñu ko gën nekk yéen daal mu ne xam ne moo gën def leen loolu de ba taxoo ragal leen yow man jëf pour yow na bopp yàlla delloo leen yow ci wër yàlla ngeen jëm ci yàlla su ma ci jëm yàlla su ma doo saa topp ma ko def um nag nag ko kan maa ka sabab fekk la mu fàgg woon yéen ñu gën dem ayra moom te ñoom laayu saboo defu wàññi leen daal de laay ji ko wàcc ci alquran loolu ak li ñu gàtt yëpp boo dee xam-xam mooy njëkk nga mujj rek ragal ngeen yàlla ragal yàlla ki nga xam ne mooy topp ndigalam bàyyi tereem te lépp lu jiite sàkk ci rek waaw ci la ci la tax a ñu waaw yàlla mi nga xam ne da ngeen dellu jëm ci moom rek te ku nekk dana la koy fi jëf de ngeen ñëw la ngeen xaw xay la de yaa ay waa dina amaloo yéen yaa ngi demal Qur'an sàkk daayantum ngeen jëflante ngeen di bay liñ ci bat loolu salam wala muy table yaa jëriñ jëm ci bindu sama ngir duñ xam parce que boobu gënu leen ko ne lépp ci dañ dañ dañ dugal bi wala yàq mu bindu waa jëriñ wat la xëy na ci jot leen daal di mën a di bindu dinaa di maanaam ne na yow nii dem le ak kii ñett naka leen jaamu waa bindu bon ba leen dama ko tudd moom ci bu yokk bu moy wala yaa ko bu kañ daal di ñaa di bindu ñett yooyu ñu bindu sama alama wala ñi nga gën a ni ko yàlla ci bindu ne boo xamee ne leen na fa nit yow mën naa bëgg moom mën nga bëgg ngeen ci ñu ne ci ñu ngeen dafa xaaju ñu ñu wati moom itam bu xaaj na bi ne da ya ko ñam bindu da ñu ñu na ci ko and ci ka da andi war na ko ala ko botale bu ci na ko fa ka bu botale mo ko wax bindu li ma ya ne ci nangam mo ya taxé du mo ragal la dara bo ko borom mo ni na wax dañu dara ngeen wala ya fa ba ñu ni ko sa dara dañ ka da na kana alla ci ka da ne war na ko ala ko da ñu ne ay yi defé aw ba ya tan ñem na ci dara yu ci aw la ya taxé way ya du mo ni ni da ñu ci ne wo moom ñu ñu wo mo na déglu làkk yi nga xam ne ñu ñu ñu wàññi woon ñu am ñu daan di maanaam bu fekkee ñoo seetloo leen day nit yaa ci góor ñenn day na nekkoon ah ñoom ñëpp ñoom yaari seede rajulin ñaari góor wa rajulun yenn góoroo nga xam ne ñaari jigéen li mu xam rafet ñu nga yem xam ne dina soo daay ci seede de am ko binda lu ci fàtte ak yow maa kenn ci ñoom ñoo ko ci fàtte ak fàtte ñu yow maa kenn ci ñoom du xaar kenn seede waa ñaari góor ma koy seede waa bu fekkee am ñaari góor nag waa benn góor ak ñaari jigéen jigéen moom kenn war a seede la moom seede ndax dañ caa fàtte waaye su ñee ñaar nag bu kenn ka fàttee soo fàttee kenn ka fàttee ko rek waaw wala yaa bu bay soo daawoo way seede daa maa doon dem waaye na leen ne buñ la wooyee ne ñëwal seede bul bañ buñ la wooyee ne kaay joxe li nga seede woon bul bañ de wala tasa boobu leen yokkat am na loolu ñoom ñu def bon ba lu bëri bëri nag li jëf la bëree bëri bëri bul tayal de bu bot bi dina lañ ko gisee saxiram aji ndax la mu nekk doon aw ak yeneen jamono aji magale ñu laa jël ñu ci digam ba daal ko mën na ak moo gën a maame la fa yàlla waa ko moo gën a gudd daal ci digam fa yàlla waat na moo gën a jege allah sa taabo ñu ci ko gisee ila ta kono dara mu tabuna yàlla ñu xam du xaal rek ñu aji teew ci jurona da ngeen wone ko da ngeen ngëpp ko bay la ci digam ngeen lu may jaay ko du ma xam ne teew mu teew la wala jox ma ni nga jox ko xaalis bi waaw ko di ko ko na ñak ko di wàññi dara wala sa ala kum kon yéen wax leen dina am bakkaar laa tax ci waa bu fekkee loolu la nag kooku moom bañ ko gën dara yow jëlee waa si doo seede doole di saa taxaa ñu dem jaayante ngeen ngeen di jaayante na ngeen sàkk seede waaw wala sa baara bu lor ñaati bu aji dund wala sa yéen di jaayante aji seede de dund kat bi seede bi yëpp ñu nan ko def ci benn lor kat waaw way safara wa dem kat yéen day naw na ko bu ko bu génn safara de wattaqullah ragal leen yàlla yuallimukumullahu dana xamal leen yàlla wal arqala alim na ci xam lawum ko liggéey ci nekk def de ñu ko xam-xam yaa bi xam-xam lool ragal leen yàlla waaw yàlla dana leen xamal de te yàlla xam na lépp saafe yi na ne tawat naa ci sama sëriñ wax ne ma ne sama géej dafa ñaaw mu ne ma bàyyil ma yàlla de xam-xam leer ak yàlla da du ko denc lu may waaw boo xam ne dafa ragal yàlla de du ko denc lu may yàlla way kuntum dem nekk ngeen xalaat safari nit ngeen di way dox da ngeen leblante wala mu tajiroo taamu leen kaati ba naa ci jënd sare aanoon tay de ndax boo ko dund di jëm jëf da ngeen doon lu ci moom ne dañ ko aasam su fekkee la ñun ci janneen waaw ba nga xam ne amul dund fet wan waaw mu leb mu leb la nga ne ko jox ma tay de waaw loolu dagan na de tey umi na ndem tey ami na ndem wóolu na waaw dugg ñeen seen baatam ñeen nag su fekkee nag ñu ñem na wóolu na ñeen ña balla ba ñoom nag bu di seede bu jaagen tay de te lii addi na joxe ala si kaaka umi na wóoloof na ko amaana taw ko la de wala tax la aram mu ragal yàlla rabbahu kay boromam wala tax boobu leen na mënta aada seede ba mu nekk mu haabu na bu na mu ko dañ wala ko haati mu aji bakkaar la xam boo xolam la wala wala halim na xam la wala xam la jore ni seede dara na bu bare billahi aji nak la ñaar yàlla ma am sama waatu na nekk ci asmaan juróom yaar wa ma fi wala na ci juróom yaar way ko do yan sa yan yan ma fi am ku nekk ci bakkaar yan aw ko ko ko ngeen na bu ko ñu haati mu na ñu ameen ñu moom la yàlla ko ci juróom yaar lépp loo xam ci sa xol nag suñu bon nga dogu ca waaw wala nga ne dañu daal di jëm yàlla rek waaw dañu daal di boole ñu ne ñu sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu wax ne suñ ko fi yàlla dañu koy waat loolu xam nañ ko waaye lu soq ci suñu bakkan yi lépp loolu suñ ko yàlla bëgg ñu saab loolu sax amuñ ca mën-mën mu ne wax leen la xëy mbokk waxoon rek samina waa xëy na ngeen bëgg a rek la xëy jëkk yi waxoon dégg nañ li yàlla wax lant nañ mu ne déedéet samina waa xëy na quraanaka quraanaka rabbana waaye bi baamu noonu wala ay wàcc nag nekk ñu ba waaye buñ ko doon waxe dañ wala xëy na baal mu ne nga saa ñaan suñu soob wala si sën baal bi saa suñu soob wala yàlla xam na yaatu na xaaraatu na ko incident lañ de te nekk na di xisaab yéen li nga xam ne mooy toq ci seen xol de waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaam waaw soo xamee ne ci yoonu fan te defu ko yàlla da ko ko digal di ko yittee def ko yàlla bind ko benn yoon di yittee lu baax te defu ko yàlla dina ko ko digal di ko defee nag benn yoon ñu defal ko ko muy fukk parce que day koo xam ne ne toog na fa ay benn benn ko ay dugg ci gëm na ama na gëm na rasul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imam sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi doon rabbi ci borom ci alquran rek yonent bi ñoom dëggal na ne alquran ci fa yàlla la bàyyi ko gëm nañu naa wooy gëm nañu ñu dëggal nañu kullum képp amana dëggal nañu bilaay ci yàlla wa malaayika bi yaati malaaka wa kutubi ak téere wala kutubi yaati yonentam daa wax ne laa nu farriqu fasalati ñu benn aat ndigal ci kenn ndigal ci nekk ci yonentam wa qaala wax na ñoom saaba ne samina dégg na noonu digal yëf na waata naa topp nañu waaw ñun waxuñ samina waata naa la bani saa la waxoon samina waata naa la waxoon waaw saaba yonentam ñooy samee ci jaam yi subhanaka danañu ñaan la mbasare rabbana ya borom suñu jagwaay nekk dana fi wax ñu ne waxuñ ne samina wa atayna mbaat mbarat la ñuy ñaan waaye li yàlla wax mënuñ bëri rakaat ga bëri nag yàlla na ay kalifu laa wax tamit jiitu waale yaa war na ko makka sa ballam fàggu ci waaye de rabbana ya borom suñu laa tuwaafis naa yàlla bu jàppee nu na fi naa dem fàttanu awasana ikanu may wala tahmin rabbana ya borom suñu wala tahmin yàlla bul xun ayana ci ñun isran aw déet kama xamantoo naka nga xamee ka xam ne ci ñoom am naa way nekk lañ ci nekk jiw ñu ci bani Israël yi doon def seen rubone alal muy asaka ñu doon baraba ko ci ñoom de ñu ci yaram muy ci maraan rabbana ya borom sunu wala nga xam ne naa yàlla bu ñannu mala fa ko leen jëf kattan danaa ñu ñaan ji ci moom ne ji togge waxtu yàlla nga jiital am naa ci ñun waxtu bi yàlla nga baal danaa ñu ñaan waram naa yàlla sa yërëm wa anta yow mawla naa yàlla nga sunu kon maa yàlla nga dimbali naa xam ci ñaar saa yi ñu koy yëngu waaw yéen a ngi ne bu def saaru baqara yàlla mu ko jox ci kaw mu nekk jaral araf rek képp ku ko jàng ci tijji waaw doy na ko naaf la guddi dem doy na ko dana am yoram naaf la naaf la guddi dem yëpp ba nga xam ne laa ji wàcc na yéen sallallahu alayhi wa sallam daf ne laatu waatu saa yi daf ne ah xanaa yàlla ne ko du ma ko def mu ne wala xam ne ana isran kama amatu alayhi xam naa yàlla ne ko du ma la ko def mu ne wala ta'minna ma la taqata lana bi yàlla na duma ko def mu ne wax waa naa mu ne ko yëgal naa leen waxtar lana mu ne baal naa am naa mu ne ko yërëm naa leen man sama war naa kon dinaa xam ko